aoudu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokku téléspectateur u DTV ñi ngi sant borom bi subhanahu wa taala julli ci sang bi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu ku nekk fa nga nekk fekk nañ la fa jox la suñu loxoy xol nuyu la ziyaara la baal la àq baalu la àq dugg nañ ci kër kilifa diine yëpp sukk suñuy um ci suuf nuyu leen ziyaara leen ñaanal leen jàmm ju bari ak tawféex ñaanal leen ñu yàgg fi loolu te wér ñun tamit sàkku seen ñaan ndax soxla nañ ko noonu la ñu demee ci hôpitaux yi ñi nga xam ne dañoo tawat ñi nga xam ne ndeysaan ñi ngi doxantoo seen tawat ñi xam ne ñu ngi tëdd ci loolu hôpital yi ñu ngi leen di ñaanal shifaa'un laa yughaadiru saqaman ñaanal nag ñi nga xam ne itam ñi ngi nekk ci bërëbu yarukaay yi tam ñu ngi leen di ñaanal ñu génn fa ak jàmm ba ñëwaat am seen liberté ñaanal nag ñi nga xam ne itamit eh, dañoo làqoo génn àdduna ñoom ñëpp yàlla ñu wax ay Seyda Adama Seck bi tam yaa layta qawmi ya'lamuun bi maa xafara li rabbi wa jaalani minal mukramin ñun ñu di yàlla guddal suñu fan wéral suñu cër waaye teg ñu ci siraatal mustaqima comme ni ngeen ko xamee seen émission bii di ndénkaane ñu ciy ànd ak yéen altine ba alxamis ci kàttanu yàlla tey nag mu nekk spécial ndax ñu ngi fii ci du bari ak équipe bi waa régie caméraman yi waaye oustaz Maxtaar a ngi ni oustaz Maxtaar ñu ngi lay nuyu di la ziar asalaamaaleykum ñu ngi lay ziar alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayyidi al awalina wal axirin muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi bukratan wa asila asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Seyda Dieynaba ñu ngi lay delloo nuyoo di la ziyaara di la ndokkeel di la jaajëfal di nuyu di ziyaara képp kuy seetaan DTV di seetaan émission ndénkaane bi wala ndénkaane tey di spécial ndénkaane ci biir yi ñuy jaajëfal ñi nga xam ne nii yëpp lañu bokkal plateau bi di leen ziyaara oustaz Pape Kane euh, oustaz Pape Makhtar ajaratu Maguette Ndiaye présidente ñu nuyu ñëpp ziyaara leen nuyu waa am naa wa xadrati tijaaniya yëpp di ci jiital responsable moral bi di Serigne di nuyu président Khalifa Silla coordinateur Khalifa Fall ak mbokk yi nga xam ne nii yëpp la ñu seqal liggéey bi ñu nuyu leen ziyaara leen ndokkeel leen ajaratu Seyda. jërëjëf Oustaz Makhtar Oustaz Pape Kane asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu di la dalal. Eh, waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu.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 di nuyu mbooleem ñi nga xamante ni ñooy top émission bi incha allahu taala nuyu ñiñ toogal ci plateau bi oustaz Maxtaar comme ni mu ko waxee ziyaar ko ziyaar oustaz yi fi nekk yépp macha allahu taala di ñaan tawfiq yàlla defal na ko may nu ñu door ci bismillahi arrahmani rahim sottal ci alhamdulilahi rabbil alamin amiin jërëjëf oustaz Pape Kane alxaaja Maguette Ndiaye présidente ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di la dalal di la wax asalaamaaleykum Euh, aleykum salaam wa rahmatullah euh, Zeynab Fall maa ngi leen di nuyu auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala ashrafil xalqila sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi wa sallama tasliman maa ngi nuyu ñëpp ñu ma bokkal plateau bi euh, Adja Zeynab Fall Sarr di la ziar di la wàcce sa wàccuwaay ak ñu ma bokkal plateau bi di leen ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla dolli sutura ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla euh, xew-xew bii ñu jub yàlla may ñu ci ndam lu jiit suñ jot ci barke Cheikh Ahmad Tijaan mi waral bis bi asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf Alxaaja Maguette Ndiaye. Euh, al oustaz Pape Mokhtar Sylla ñu ngi lay nuyu yow tamit di la dalal di la wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu eh, yaa say nabu maa ngi lay nuyu bu baax yow tamit di la ziyaar aouzu billahi sami alalim min alcheytani arrajim allain bismillahi arrahmani arrahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi atayibina tahirina alayhim ajmain wa man tabiahum bi ihsan wa bilhuda ila yawmi ddin ورضا الله الخالد عن شيق الشيوخ برزق البرازيق تاج العارفين ممد كل أولياء الرحمن أبي العباس أحمد بن محمد السالم التيجان وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن نهج نهجه وسلك طريقه القويم إلى يوم الدين ورضا الله الخالد عن سليل عثمان سيد الحاج مالك سي رضي الله عنه وعن جميع أبنائه وأصواته وأحبابه رضا لا سقط بعده أبدا وأيد الله ونصر الخليفة alcaama litaifati tijaani sayidi aboubacar si ibnu maam alxaaji mansour si radiallahu taala anhu yaa sayda ñu ngi lay nuyu baax di la ziar di nuyu mbooleem ñi nga xam ni ñu ngi ñuy seetaan ci waxtu yi tey bàyyi xel seen émission bi tudd ndénkaan jërëjëf al oustaz Pape Mokhtar Sylla ñun tam ñu ngi lay fay bu baax a baax a baax ñu ngi nuyu tamit suñu public bi nga xam ne macha allah teew nañ fi suñu yaay yi nga xam ne teew nañ fi ñëw toog ñun oustaz Mokhtar ñun ñëpp dañoo bokk ci abnaa u xadratu tijaaniya ay doomi jotaayu tiijaan ya ñii da ay yaay lañu moom ñu fi teew nii ay yaay lañ <laughs> ah présidente yaay la macha allah waaye ci doomi tiijaan ya waaw waaw <laughs> Soxna Matar eh, eh, mbokk téléspectateurs yi comme ni ngeen ko waxee ñu ngi fii ci stade Amadou Barry olof day wax ni lu yëngu lu ne ma yëngu ko ko yëngal la li xew te yëngu te war a yëngu suba incha allah mooy xadara bi nga xam ne eh, ñu ngi koy gis ne am na ñoo xam ne ñoo koy organise tuddee seen bopp doomu jotaayu tijaaniya Oustaz Makhtar eh, lii nga xam ne yéen a ko taxawal ñu tuddee ko xadara xadara ñu xamal woon ko ca jumaa ja ngeen di ko yaatal di ko yaatal tey bu ñu ñëw ci stade macha allah luy sabab bi ak kañ ngeen ko commencé. waaw jërëjëf Seyda laaj la bu ama am solo. Euh, xadara bi xam naa oustaz Pa oustaz Pa Maxtaar danañ ci ñëw ni muy ci tariqa bi waaye li ko indi fii ci stade bi lu am solo la laaj boobu ngir ñu leeral ko ndax ñu bëree bari dañuy tëb rekk gis xadaratul juma bu ñu defee ci stade ñu ne ban stade la ñu ne stade Amadou bari muy stade bii ñu toog te subaak jàmm ñu fas yéene ko fee amal ñu yaakaar na ñi ko amal dañoo tëb rek indi ko ci stade bi fekk stade bi quatrième édition la fi ñëw. bi mooy bi mooy sixième bi sax. waaw stade bi def nañ ko fi ñaari yoon. bu suba bi incha allahu taala mooy doon ñetteel. li ko waral Serigne Fata Sarr nekk sunu mag Oustaz Fata fii mu dëkk nii ci wetu stade bi la am jàkka ju mu taxawal. bi mu demee ba liggéey bi yegg sunu kilifa sunu sëriñ sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amin nekk wëllëreem di woyjuram di léppam ne ko mooy ñëw ubbi ko fekk bi muy pose première pierre bi dafa bëggoon a ñëw sëriñ Fata gàntal ko mu yebal doomam mu ñëw bi ñu pose première pierre bi nekk ci liggéey bi ba liggéey bi yegg sëriñ bi ne ko moom mooy ñëw ubbisi ko bi mu koy ubbi mu nekk institut islamique daara la yu ànd ak jàkk rajo hôpital mhm. waaw am na rajo am na hôpital am na hôpital ak daara bi mu koy ubbi si nag mu dëppoog bisu àjjuma mhm. euh, gannaaw ponk la ci tarixa bi xadratul juma bi mu koy ubbi si ñu ne nañu waaj pour bu heure tàkkusaan jotee mbokk yi dajaloo mën a def seen wasifa mën a def xadratul juma yàlla dogal ñu dooree ci 35 baas jëm kaw duñ koy njëkk a amal mbooloo mi bari ba baas yi fees mobilisation bu mel noonu nag ci banlieue bi néew lu muy am bi mu weesoo am mbokk taalibe yu sàkku ku ci mel ne Duudu Njaay mm. ñëw ci sëriñ Fata ne ko bu ñu sañoon lu mel nii daal du am ci banlieue bi benn yoon rek jeex mais loolu rek moo doon programme bi mhm. mooy ubbi si na jàkka ji institut bi ñu xadara yeewiku loolu doon programme bi mhm. mais nekkul lu doon am at mu nekk bi mu ko waxee loolu mu ne ko bàyyil ba ma dem gisee sëriñ bi mhm. ndax waxante woon muy am at mu nekk dafa ñëwoon rek du ubbi si institut bi mu dëppook àjjuma ñu def xadaratul juma bi mu demee wax ko sëriñ Abdou sëriñ Abdou nangu ko xamal ko ne ko loolu dafa doon géntam moom géntam sax nekkul rek ñuy dajaloo at mu nekk waaye dafa bëggoon ci ay projet la mos a bokk taalibe Seydi Ahmada Tidiane yi benn bis ñu lal malaanu cent vingt mètres tiim ko di tudd yàlla mhm. mu ne ko loolu boo ñu ko chargé tamit ñu boole ko ci def ko mu ne ko chargé nañ la mu ne waaye danañ nangu bis boobu mu taxaw mais ci benn sart mooy bu bañ nekk rek dajaloo noonu mais ñu def ko mu nekk bis boo xam ne dañuy ñaanal réew mi ci la yëkkatee ay dog dox ko ko mhm. lu mat fukki tur yàlla ak lu topp benn bu nekk danañ ko jàng cent vingt quatre millions balaa xadra bi di dikk mhm. yaa salaamu yaa latiifu cent vingt quatre millions cent vingt quatre millions danañ ko ko jàng balaa xadra bi di dikk loolu yooyu kenn xamul nu toll Oustaz Makhtar waaw loolu macha allah ak lim ci yaasin mhm. lim ci sayfiyu lim ci Quraysh lim ci Fallaxi lim ci Naas yi. ak ay kaamilu alquran. kaamilu alquran yi fii mu toll nii ren li ñu jàngagum mat na juróom-ñaari junniy kaamilu alquran. 7000 kaamil. bu njëkk ba. xam naa bu njëkk ba. Euh, dañ daan jàng tënk ko comme junniy kaamil ak lu topp. mais at mu nekk ak ñi ciy dolleeku kaamil yi di gën a yokk. loolu ci même jour bi lay nekk. déedéet maanaam balaa xadra bi di dégg. balaa xadra bi di ñëw ay weer. ay la ñuy def loolu. la ñuy nekk di jàng kaamili yi. d'accord di jàng dog yi. Mhm. sunu mag euh, Oustaz Adama Sarr. Mhm. moom lañu ñu chargé loolu moo ko yor. mooy séddale dog yi. Mhm. mooy jokkoo gi daara alxuraan yi nekk ci dëkk bi. biir ndakaaru bi ci ndakaaru biir Saalum. biir Bawal fu ci nekk am na ay daaray alxuraan yu fa nekk yoo xam ni. bu xadara bi jublu si danañ leen contacter six mois avant sas leeni kaamil ñu jàng ko dajale balaa xadara bi di dikk ren fii mu toll juróom-ñaari junniy kaamil ci li ma mujjoon am ci semaine bi ci liñ dajaleegum. juróom-ñaari junniy kaamil. 7000 kaamil. yoo xam ne jàng nañ ko. jàngagum nañ ko te am na yu ciy dooleeku si. loolu noonu la ci bisu xadara bi nag. Mhm. la ñuy dajaloo pour tëj ñaan yooyu noonu le léegi bi biñ ko amalee deuxième fois bi. Mhm. ñu yokk baas yi ba quarante quelques baas. Mhm. Euh, ñetteelu année bi dem nañ ba soixante baas. terrain bii nekk ci booru stade bi ñu koy wax terrain màgg daan. fa lañ ko daan amalee. Mhm. mu dem ba mbooloo mi xajatu fa. te ñi bëgg a ñëw ñoo ëpp sax ñi ñëwagum. dëgg la. ñu ne nañ ko indi ci stade bi waaye lu mu ci doon dañuy ànd ak ndigalu kilifa. sëriñ Fataa dem waxtaan ceeg sëriñ Abdou mu accepté ko. fekk wax na lu yàgg war na mat vingt ans ci ginnaaw. Mhm. ne yéen ndaw ñi seen yitte. fekk demul ba yegg ci ngeen dem stade amitié. Mhm. lal fa malaan tiim ko di tudd yàlla. seen mhm. yitte des na. ndeysaan. wañ bu nekk nag ci benn lay. tàmbalee dëgg dëgg la bi mu demee wax ko ko mu accepté ko. ci année boobu lañ ko indi ci stade bi. muy 2016 bi. 2016. ñu bari ci la ñu yëgee nag événement bi. ndax ci la ko télé yi njëkk a def direct. bu njëkk télé yi dañ daan ñëw jël si ko ci terrain bi bu weesoo ñu teg ko mhm. mais bi mu ñëwee ci stade bi nag ci la ko ñu bari yëg njortu ne ci stade bi la doore mhm. fekk jiitu na ko waaw jiitu na ko ñun bañ fañ ñëw mu ngoog daan ngeen ñëw fële ca terrain ba boobu nekkawul woon fii ci stade mhm. loolu moom moo ko indi fii ci stade bi ñu def ko fi tollanti ko ren war a nekk troisième fois ñu koy defee fii ci stade bi nekk sixième édition wu xadara bi sëriñ Abdou nag ne benn yitte rek la ci am. Mhm. muy bis bu nuy ñaanalee réew mi. Mhm. waaye bis boo xam ne day dajale njabootu Cheikh Ahmada Tidiane. dëgg la moo tax tout le temps da daan wax ni. Mhm. bu leen ko def mu nekk daayira. bu leen ko def mu nekk association. bu leen ko def mu nekk benn kuréel ci kuréel yu nu xam. lu dul daal ab naaw xadarati tijaaniya tur woo moom moo ko joxe. moo ko joxe biñ demee ba ci ñaareelu at mi ci xadara bi. ci lañ ko laaj ne ko ah baax na de organisation bu mel nii. ñu am tur woo xam ne dañ koy yóbbaloo. Mhm. ñu xam ne ñii nii lañ tudd. mu xalaat ba mu yàgg ne indil leen ma big ak feuille ñu indil ko ko ci loxol boppam la bindee ab naawu xadarati ya kenn ci njaboot gi di coordinateur bi di Khalifa Fall. Mhm. ne ko sëriñ loolu lu muy wundu mu ne ko waaw jataayu doomu tijaan yi rek. Mhm. mooy bis boo xam ne daal njaboot gu Seex Ahmada Tijaani am mhm. danañ dajaloo ci bis ba ak képp ku yàlla ñor donte bokkoo ci njaboot Seex Ahmada Tijaani mhm. ndax bis boo xam ne yitte ji du lu dul dajaloo ñaan tudd yàlla tasaaroo loolu képp kuy jullit sa bis la mhm. loolu daal ci gàttal ba ba ñuy dellusiwaat loolu mooy cosaanu xadara bii ñuy amal fii ci stade bi Seyda Zeynab dëgg la Oustaz Makhtar loolu am na solo macha allah mag ñi xam nga ñu ngi koy wax barki démb di wax ne lii xew ci yeneen réew yi mënut ta xew fii senegal mhm. ndax ñaan yi nga xam ne mag ñi dañ ko fee bàyyi ak li nga wax léegi li mu ay junni tudd yàlla toog mhm. jàng alquran mhm. loolu kenn xamul yiw bi naka la toll yal nañ ko yàlla fayal waaw ay ndaw ay xale yu amagul xale yu amagul bàkkaar ñu ci bari ñoom ñooy jàng alxuraan ji nga xam ne ñu ngi koy jàng xëy na tur yàlla yi la mag ñi nga xam ne mënuñoo yër xëy na di jàpp di ci zikkar waaye kaamil yi boo demee Saalum ba ci bitim réew. Mhm. day am ay mbokk yu ne jàng nañ lim ci kaamil. ko defee yooyu yëpp la dajale nag mu nekk benn lim. dëgg la pour wax la ne nag loolu nga wax noon dëgg la. Mhm. la la la yenent bi waxoon. ci benn xabar ne lawlaa ibaadun rukka mhm. wa sibyaanun rudda wa bahaimun rutta la saballaahu aleykum adaaba sabba dëgg la budul woon ak yenn ci jaamu yàlla yi nga xam ne ñooy rukkoonal yàlla ak xale yi nga xam ne ñi ngi nàmp seeni weenu yaay mhm. ak bàyyi ma yiy for defuñu yàlla dara mhm. kon li ngeen di toggoo ci ñaawteef yàlla dana sotti mbugalam ci seen kaw dëgg la kon bis yii nii bis la yoo xam ne kii te Sénégal la bokk. waaw Sénégal Sénégal ñëpp ko moom. waaw ñëpp ko bokk. waaye itam président war na ko yëg war na koo yëg. ndax lépp loo xam ne dafay indi jàmm ci réew. day indi stabilité ci réew. Mhm. day tax nit ñi am euh, tumaaninatul qalb. defe naa loolu dañ ko war a appuyer. lii moom war na ko yëg kuy autorité war nga ko yëg. ñëpp ci war a teew suba comme suba lañ koy def te li ñuy financé ay milliards ci sécurité. Mhm. di jëndi arme ak soldat. waaw gënuñoo ay Amérique gënuñoo ay France. Mhm. te ñi ñuy ragal ñi ngi dal ci seen kaw. dëgg la waaye Sénégal sunu arme bi gën rëy. mooy allahuma te loolu nag mag ñi bàyyi nañ ko fi mhm. ñun la des pour ñu sàmm ko incha allah dëgg la ak tudd yàlla ala bi zikrillahi tatma innil qulub dëgg la jërëjëf oustaz Makhtar oustaz Pape Kane macha allah suñu oustaz am mbégte bokk ak yow oustaz Pape ndax xadaratul jumaa dafa bokk ci ponki ponki xada kii bi tijaan xadara bi xadara ndax dafa bokk dafa bokk ci ponk yi nga xam ni far force la obligation la ñu koy def képp ku nekk tijaan da nga war di def xadaratul jumaa waaw jazakillahu xayran yaa sayida baatu xadara nga baal ma nga définir nga définiral ko ñiy seetaan ndax toujours da ngay gis koo xam ne maa ngi dem xadara tey la àjjuma dañoo am xadara baatu xadara ci olof moom mooy lan euh, xadara mooy am ndaje ah, ndaje ab jataay mooy xadara euh, baat bi ñu koy jël di ko jëfandikoo am na sax ñu koy def xaa mais du noonu xadara la waaw xadara mm-hmm. Mm-hmm. mooy ab teewaay ab jataay mhm. jataay boo xam dañ ciy tudd borom bi subhaanahu wa taala comme la yonent bi sallallahu i wa sallam waxoon ni iza marartum min riyaadil jannati fartau mhm. qiila ya rasulallah wa ma riyaadul janna qaala xilaqu dikri yonent bi ni su ngeen rombee ci dëri aljanna yi na ngeen wett ci meññent mi ngeen lekk saxaaba yi ni ko waaw yonent lan mooy deru aljanna mu ni mooy jataayu zikri yi kon xadara jataay la boo xam ne dañ cey tudd borom bi subhanahu wa taala mais nag li tax tariqa mu bokk ci tariqa bi parce que daa bokk yi min lawaazimi tariqati atijaniya mhm. lahu min al awraadi laazimun wa ma mhm. laysa bi laazimin ala ma suwima waaw loolu la Seydil Xaaji Mari wax ca Fatiha nee na tariqa cheikh daf ci am yoo xam ni laazim la laazim mooy lu nit taqool mhm. du ko saña bay bàyyi bu fasante ak charte yi du ko bàyyeeti mooy laazim nee na nag tariqa cheikh daf ci am yoo xam laazim la ki jël tariqa bi sañatu koo bàyyi am yoo xam ni du laazim awraat ixtiyaariya la mhm. yaa koy tànnal sa bopp am temps def ko mais lawaazimu tariqa salaasa ñetti laazim ñoo am ci tariqa bi mhm. bi njëkk ci lawaasim yi mooy wirdu suba wirdu ngoon yi mooy ñetti téeméer ñetti téeméer yooyu muy wird mhm. ñaareelu laazim bi mooy wazifa ci lawaazimu tariqa la bokk. wazifa wazifa waaw. Mhm. mooy li ñuy def euh, muy am fatiha di am istighfar fanweeri yoon. Mhm. di am salaatal fatixi juróom fukki yoon. di am laa ilaha illa allah téeméeri yoon. di am jawharatul kamaali fukki yoon ak ñaar. Mhm. bu dee silsila sayyidil xaaji Malik moom ni mu xamee temps mu ni mën nañ koy def moom it suba di ko def ngoon. waaye mu am beneen laazim muy ñetteel bi mhm. mooy xadratul jumaati kon tariqa cheikh ahmed tijaani li ñu sant ki nga xam ni moo ci nekk bokk ci mooy ñett yi nay wirdu suba di wirdu ngoon nay wazifa suba wala ngoon wala muy wazifa suba ngoon walla muy xadratul jumaa ñett yi ku nekk taalu ba cheikh rek amoo droit bàyyi mhm. kon xadra min lawazimi tariqati tijaniya mhm. ci la bokk ci la bokk euh, muy euh, jataay bu am solo mhm. ndax dafa bokk ci programme ajjuna ajjuma programme ajjuma nag kenn joxewu ko yàllaa ko joxeel boppam yaa ayyuha alladina amanu mm. ida nuudiya lisalaati min yawmi aljumaati mm-hmm. fasaaw ila dikrillah wa darul bay'a mm-hmm. dalikum xayrun lakum in kuntum taalamuun mm-hmm. mu ni fa ida qudiyat alsalaatu fantashiru fi l ardi wabtagu min fadlillah mm-hmm. wadkuru llaha kathiran laallakum tuflixuun ajjuma programme baa ngi ni julli ajjuma ci programme ajjuma la bokk dem liggéeyi sàkku ji ngëneeli yàlla ci programme ajjuma la bokk moo tax ajjuma du feet mais su ay nit dajee def ko seen feet mën na nekk feet dëgg la waaye wabtaxu min fadli fantashiru fil ardi mhm. wabtaxu min fadlillahi moo dindi feet gi kon dañu war a dem liggéey mu mel ni dañ ni ko waaw bu ñu wàccee nag xanaa programme bi jeex na mu ne déedéet mhm. wadkurullaha kathiran mhm. laallakum tuflihun su ngeen wàccee ci liggéeyukaay yi ci ngoon gi na ngeen tudd yàlla lu baree bare bare baree bari ndax ngeen bokk ci ñi nga xamante ni dangeen di am falaax mooy ñi nga xam ni dañuy dañuy texe. texe kon euh, ajjuma. Mhm. programme bi. Mhm. daf cee bokk tudd borom bi subhaanahu wa taala. dëgg la tudd yàlla kon. Mhm. programme la ci programme mu ajjuma. beneen bi te am solo lool. mooy synchronisation la. ci ah. mala'ul aala ak mala bi ñu nekk waaw waaw macha allah parce que xam nga ni malaaka yi ñoom seen tudd yàlla duñu arrêté laa yëf sorun la alquran duñ ko nag léegi nag te ñun dañuy dagg suñu activité waaw léeg ñu ne ci yàlla léeg-léeg ñu bàyyi léeg-léeg ñu ne ci yàlla mhm. léeg-léeg ñu bàyyi mhm. mhm. mais ñu ut benn waxtu boo xam ne jaam yàlla yi ca kaw ak jaami yàlla yi ci suuf ñooy bokkandoo même programme mooy ñu jël ajjuma ci ngoon di di rëkk benn baat nag parce que benn ponk la xadara am xadaratul jumaa benn ponk rek la am yeneen yi am na ñett comme wird am na ñetti ponk comme wazifa am na ñeenti ponk mais xadratul jumaa benn ponk rek la am mhm. mooy laa ilaha illa allah dëgg la boo ko defee baax na mhm. soo defee allah allah allah baax na mhm. Seydil Xaaj Maal nee na boo boolee allah ak laa ilaha illa allah mooy ëpp doole te nga njëkkee laa ilaha illa allah mooy baat bi mat nga njëkkee ko dëgg la am na tam ñu ñoo xam ne léeg-léeg mën ñoo dégg baatu allah allah allah ñu ni kenn waru ko wax kenn waru ko zikkare mais njuumte la qulillah mhm. thumma dharhum fi xawdihim yalabuun la mhm. alquran wax yàlla nee na mhm. subhaanahu wa taala ñii fo ne ci seenum po na nga leen bàyyi ak seenam po te nga dem yow waxi allah nga tuddi borom bi subhaanahu wa taala kon benn ponk boobu la am moom xadratul jumaa mooy wax laa ilaha illa allah xaw ma nag te am nañ ci yaakaar bu baax ña koy def lu ñu am lu ñuy am xaw ma lu ñuy am xaw ma ko waaye man naa la nii mm. la li ñuy def yaakaarlu na lool mm-hmm. parce que dañuy wax kàddu gi gën ci kàddu yi mm-hmm. di ko waxee ci bés bi gën ci bés yi muy laa ilaaha illallah ma nag buñu paree lu ñu am <laughs> waaye kàddu gi gën ci kàddu yi ñu ngi koy wax yéen ci bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg it am ku la nii ah lii de jàng alxuraan a ko gën waaye kiy def laa ilaaha illallah mi ngi jàng alxuraan parce que dafa seet baat bi gën ci alxuraan mu koy wax mm-hmm. waaw waaw faalam annahu laa ilaha illa allah la alquran wax mhm. waaye baat bi gën ci alquran kon mooy laa ilaha illa allah mhm. yonent bi nee na afdalu ma qultu ana wa nabiuuna min min qabli laa ilaha illa allah mhm. yonent bi nee na li gën ci man ma wax ko man yonent ñii ma jiitu woon ci ay yonent wax ko baat bi gën mooy laa ilaha illa allah kon dañu segg baat bi gën ci kaddu mhm. gën ci alquran di ko waxee ci bés bi gën muy aljuma muy sayidul ayaami mhm. ñoom nag bu ñu paree xamul lu ñu am waaye xam naa ni kaddu gi gën ñu koy wax ñu ngi koy waxee ci bés bi gën insha allahu taala kon wazifa xadra mhm. ci laazimu tariqa yi ñu war a taqoo ci tariqa bi di ko jëfee xadratul jumaa ci la bokk macha allahu taala dëgg la oustaz Pape Kane nga ne am na ñoo xam ne dañuy wax ni euh, allah allah rek kenn du ko wax am na ñoo xam ne duñu wax sax allah huwa rek la ñuy wax waaw euh, parce que allah mhm. ay dimension la mu ngoog mhm. dañuy bañ baat bi dañ dañ ko war a da nga war a tofal ak dara mhm. comme nga ni laa ilaha illallah ah wala nga ni subhanallah ñoom loolu la ñuy wax waaye boo gëstu alquran bu baax da ngay fekk ni fa tabarakallahu eh, mën nañu wax baat boobu beneen bi liñ koy tëji ci tomb boobu mooy bokk na ci yi sayidi cheikh ahmad tijaani gënoon fonk baatu allah wa xadratul eh, ah, jumaa waaw cheikh da ko fonkoon mhm. lool macha allahu taala ndax synchronisation bi ma la wax dëgg la diggante jaam bi ak boroomam waaw ndax wax na ko benn mbokk baaba abbu lañ ko daan wooye ci Marrakech mhm. dafa fekk na Cheikh am ngant maanaam teewul ci mbooloo mi ci zawiya bi mee ngi mi ngi dégg ñu ngay def xayla la baaba moom ñëw toog ci Seydina Cheikh toog toogaay bi yàgg ña nga ca xadra ba mhm. Seydina Cheikh ni ko lu tax demoo ca mbooloo may tudd yàlla mu ni Seydina Cheikh man de ma toogoon fii sawet sa ak yow moo ma dàqal Seydina Cheikh ni ko nag man nga dem ca mbooloo ma moo ma dàqal mhm. ndax yiwu rëy mu ngi lay raw te toog ci diggante boo xam ne yàllaa nga fa yonent baa nga fa moo gën toog ci kanamu Cheikh na Ahmed Tidiane kon da ko fonkoon lool lool mhm. lool macha allah daana fekk sax bu jàkka ji tasee zawiya bi tas kee toog fee toog fee moo leen di indiwaat ci sàppe yi leen di mhm. leen toog leen jàngal leen aaya ba mhm. inna allaha yuhibbu alladina yuqaatiluuna fi sabilihi saffan ka annahum bunyaanun marsuus mhm. organisé wat leen mhm. ndax jataayu zikr am gu mu am doole macha allahu taala la oustaz Pape jërëjëf jërëjëf kan xam nga tudd yàlla individu bokkul ak boo xam ni bu mbooloo la ci kaw defe naa malaaka fa nekk xamul naka la ñu toll te ñoom ñëpp dañuy tudd yàlla kon defe naa ñi suuf ñoom tam buñ defee mbooloo di tudd yàlla dañuy am li malaaka yi li malaayika nag am nag moo tax nit yàlla gënee la ko lu dul moom aha jërëjëf kan dinañ ñëwaat léegi ci yow incha allah alxaaja Maguette Ndiaye présidente ñu ngi lay ziar beneen yoon euh, taxawaayu jigéen ñi ci xadara bi lan la lan mooy seen taxawaay jigéen ñi nag moom gis nañ ni mbooloo mu am jigéen ñi ñoo ci ëpp Pastef ñoo ciy gën a taxaw même bu dee joxe koppar sax ñoo gën a mën a joxe koppar yi muy seen taxawaay waaw loolu Adja Zeynab saar loolu ba mu ci laajee dinaa ci sawar bu baax a baax ndax kenn ku nekk xam na ni jigéen taxawaayam ci diine ji diine islaam euh, fonk gi ko suñu boroom fonk cër bi mu ko jox ba lu mu duggul dara du ca dox moo waral Mouhamadou Fata Sarr mi nga xam ne liggéey bi Serigne Abdou Ansi Al Amin daf ko jël teg ko ci loxoom wax dëgg yàlla bi mu demee ba xool seggaat xool xam ne lii kat jigéen ñi buñ ci dugalul seen loxo du dem mu woo ñu dajale ñu toog jël yëg mbooloo jigéen mi teg ko ci sama loxo wax dëgg yàlla ñu ànd ko ak ànd bu rafet du ko doxal doxal bu rafet ñu fekk fi tam suñuy waajur yoo xamante ne macha allah ñu jur ci xadara bi ñu ànd ñuy ay femmes leader di ay femmes responsable di femmes yu engagé wu yu am rigueur wax dëgg loolu yàlla loolu laa gis si ñoom euh, taxawaay bi nag mooy wax dëgg yàlla li ñu war yëpp ñu ngi koy def ndax ñun amuñu lu Seydina Cheikh euh, amuñu lu ku Seydou kër Seydi Hadji Malick rawatina nag euh, suñu yaay yu baax yi nga xam ne ñooy suñuy kilifa ñu fekk leen fi ku mel ni soxna Faat si daa baax soxna Laal bu Serigne Abdou Assi Al Amin euh, ak soxna Asusi wax dëgg yàlla ñuy ay jàmbaar yi jigéen mhm. jàmbaar lañ donte ne ay kilifa lañ ci kër gi ak soxna Asi bu Seydi Jamil wax dëgg ku lim rek juum ñuy nit ñu baax di nit ñu engagé wu di nuy itam de passage Euh, suñu yaay Adja Ayda Ndiongo di soppe sëñ Babacar waroon na tey teew tey waaye dafa am empêchement wax dëgg yàlla di ci di di ci wootam euh, première daam ndax euh, du ma ne première daam yëgul lu mel nii ndax mënul nekk ci réew mi ah di di di kilifa réew mi lu mel nii di am ci réew mi te du ko yëg xëy na nag jot bi moo matewul mhm. ak temps bi waaye bu ñu sañoon ah bu xoolee ci éditions yi wala mu dégg lu mel nii war na ci teew donte sax jotul carte wala jotul invitation te wax dëgg yàlla xëy na dañ ci jotewul ci moom waaye li ñu war jéego yi ñu war ñu ngi koy def xëy na dafa jotul carte bi wala dara waaye bu ñu hmm. sañoon ah mu teew ci bés bi jëmmal bés bi ngir jigéen ñi ci tërale euh, soxna Zeynab Sarr ah ñun suñu engagement ci bés bi mooy hmm. ah euh, dañu toog ak Mouhamadou Fata Sarr hmm. mu ne ñu dafa toogoon ak Serigne Abdou mu ne ko euh, lii ma teg sa loxo de bu ma sañoon jigéen ñi am ci cër. Mhm. mu jël cër bi jox ñu ko ñu ciy doxal anam yu rafet euh, di ci seeti bon volonté yi nga xam ne ak personne ressource yi wax dëgg yàlla ñu jàpp ci bu baax a baax a baax ndax taxawaay jigéen ñi ku ne gis na stade Amadou Barry ni mu day waaye tey boo doon lim boo ne mille femmes da nga naan deux cent garçons deux cent hommes boo ne mille femmes. Mhm. deux cent hommes ngay wax ndax nag yàllaal ñu séré la lool mhm. ñu koy doxal nag ci anam bu rafet. ren nag di sixième édition. Mhm. wax dëgg yàlla eh, bi ñu toogee Pape Malick mu ne ñu. daaw de neex na lool waaye na ren dàq. day dàq eh, ren dina ko wone ndax jigéen ñi takk nañu taxaw nañu. Mhm. te gis nañu seen engagement ak seen rigueur. Mhm. ndax kenn ku nekk wane na femme leader bi nga doon ah bés bi rek moo ñu ñor te booy seet tey partout dans le monde. Mhm. li wër seen ak diaspora bi rawatina Sénégal rawatina département Guédiawaay bii ñu nekk ñu indi ñu ko fii ci suñu gox dañuy delloo njukkal suñu borom. rawatina seet naa Cheikh. ak Seydi El Hadji Malick ak njabootam di rafetlu jotaay bi bu baax a baax ak suñu yaay yi ñu ci toogal mm-hmm. ñu bàyyi seen temps bàyyi seen yëpp ñëw bokk ak ñun plateau bi mm-hmm. ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah ba nga waat mm-hmm. ñu mën a gën a dugaat ci dëgg la dëgg la macha allah du lii du du du bett kenn jigéen am taxawaay boo xam ne dafa ràññeeku ci toolu islam. ndax jigéen mooy ki njëkk a gëm. ginnaaw yonent bi ak alin jigéen moo njëkk a julli ministère bi yore wàllu économie ci diine ji jigéen moo ko njëkk yor te nag ñi fi baax ñëpp jigéen moo leen jur kon seen taxawaay bu ràññeeku bi du du nekk loo xam ne dafay bett kenn ndax xam nañ jigéen ak taxawaayam surtout ci tool bi nga xam ni mhm. moom mooy islam kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jërëjëf merci oustaz euh, Pape Moukhtar la lan mooy njëriñu tudd yàlla rawatina baat bii di laa ilaha illallah nga xam ne oustaz Pape mi ngi ci doon dugg léegi ah dégg naa dañuy wax ne sama xam sama àll wax mu sori ne laa ilaha illallah boo ko waxee benn yoon tamu mu sell malaayika yi dañ koy njëkkante ku nekk naan maa koy jottali borom bi benn rawatina loo xam ne ay mbooloo ñoo koy tudd moo tax Sénégal dal rek moo fi am incha allah ku fi béy ay dafay mujj dal ci sa kaw këpp ci sa kaw fii de kii kii la boo xam ni réew la moo xam ni li ko fondé mooy ay nit ñoo xam ne dañoo jaayante woon ak seen borom ay nit ñoo xam ne dañoo jaayoon seen àdduna jënde àllaaxira ba tax tey muy dox di dox ba egsi fii kon tey lu mel nii su amee man moom personnellement maa ngi woo képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah suba ñu daje fi ndax dina bokk ci li nga xam ne dina dala réew mi ndax ñu ngi jublu si ci ay mbir ci ay élection ñaan ñi fii ñaan dina tax dal dina am ci réew mi te loolu lañu soxla te ñun doomu Sénégal loolu lañ taamu loolu lañ xam ñun xamuñu fitna kon lan mooy njëriñu tudd yàlla rawatina baatu laa ilaha illallah soxna Zeynab ginnaaw bi ma la nuyuwaatee nuyu ñi nga xam ni ñoom la bokkal plateau bi yëpp nuyu tamit suñu yaay yu tedd yi toog bokk ak ñun jotaay bi. laa ilaha illallah njëriñam kenn xamul nu mu toll. li yàlla waxoon ak ñun jaamam yi ci alquran rek laa lay delloo ci baat boobu. dafa waxoon ni wa in tauddu ni'matallahi la tuxsuha su ngeen bëggoon wàññi wala ngeen takk wala ngeen jàmbat xéewal yi leen yàlla defal da ngeen di lott rek waaye du ngeen ko mën waaye laa ilaha illa laa itam suñu bëggoon wax ngënee li la ilaha illa laa dañuy wax di wax di di wax ba sonn waaye ngënee li laa ilaha illa ko mën soxna Zeynabu laa ilaha illa la tàmbale ci yont yàlla aadama ba ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa di cent vingt quatre mille prophètes ñoom ñëpp baat boobu moo tax yàlla yónni leen laa ilaha illallah ñoom ñëpp mhm. moo tax tawraat laa ilaha illallah doo nga taxoon yàlla wàccee ko injil laa ilaha illallah doo nga taxoon zabour laa ilaha illallah doo nga taxoon furqaan tamit laa ilaha illallah dong moo tax mhm. yàlla wàccee laa ilaha illallah kon tudd baatu yàlla wax ngeen ko léegi wax nga ko léegi bi ngay tàmbali mhm. ala bi zikrillahi tatma inul xuluub wala alquran wax mhm. e, gis nga ci tudd yàlla boobu sax ngay dem di dem ba nitu yàlla yi aay bi dañ koy jàng ñoom gis ci beneen gis-gis xool ibn al arab saaih mhm. dafa toog waajo ni ala bi zikrillaahi tatma inul xuluub mu ni ko déedéet ala bi zikrillaahi tasdaadu zunubu waajo ni ko lay ni mu ni ko ala bi zikrillaahi ya cheikh tatma inul xuluub mu ni ko déedéet ala bi zikrillaahi tasdaadu zunubu yàlla dafa ne ala bi zikrillahi mhm. ci tudd yàlla tatma inul xuluubu ci la xol di dale mhm. ibn al arabi saih radiallahu taala anhu min xulafaayi saydi Cheikh Ahmed Tidiane la bokk mu ne ko déedéet ala bi zikrillahi kay tazaadu zunub mu ne ko ku fàttaliku yàlla yàlla ku ko fàttaliku mhm. da ngay am bàkkaar parce que yàlla waroo ko woon fàtte ba di ko fàttaliku dégg nga te maqaamu boobu lan moo ko may mooy tudd gi muy tudd yàlla subhanahu wa taala moo tax yonent bi wax na ko ci xadis nee na xol dafay xomaat comme ni ngay amee sa benn weñ bu ñuul sa ñaar fukki dërëm mu réer wadd ci suuf diir bu yàgg nga for ko gis mu ñuul nga jël suuf wala ndox bomb ko ci mu weex tàll mu ni xol day def noonu mm-hmm. xol nag su fekkee dafa def dem ba def noonu dafa am koy dellu siwaat lu koy raxas ba set wécc dellu siwaat ko mu weex tàll mu ni loolu lan la mu ni loolu mooy tudd yàlla kon soxna Zeynab tudd yàlla bokk na ci li nga xam ni dafay defar xolu xolu jaam bi looloo tax sidna cheikh radiallahu taala ci tariqa bi mboolem azkar oustaz Pape wax na ko léegi mhm. am ci mboolem tariqa bi yëpp boo dem nga ci fekk baatu hëy la mooy laa ilaha illa allah mhm. laa am na ci werd ba am na ca wasifa wa am na ca xadaratul jumaa bi nga xam ni moom lañ bëgg a def fii ëllëg yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa doog ak saxaaba yi mu ni kaay leen ma wax leen yiw mhm. woo xam ni moo ëpp àdduna li ci biiram moo ëpp ngeen doon dajale ay jamaa ak ay wurus di ko def fi sabilillahi mhm. moo ëpp doole itam ngeen war fas jël jaasi dem dajeeg seeni noon xeex ak ñoom di dagg seeni loos ñoom it ñuy dagg seen loos te mu ëpp daraja tamit ci ëllëg bu ngeen dajag yàlla seen borom subhaanahu wa taala xanaa bëggu leen ma xamal leen loolu saxaaba yëpp ni ko ah kay yow mi woon mu ni dee leen bari lu ngeen di tudd yàlla di wax baatu laa ilaha illa allah laa ilaha illa sunu maam ji tedd alaaji abdul aziz yàlla yàlla yokk leeram daan wax ni zikrul ilahi lil qulubi quutu mhm. in lam taish bihi fa hiya tamuutu mhm. mu ne zikrul ilahi tudd yàlla lil qulubi quutu nee na mooy dundal xol biir bi am na lu koy dundal Adja Zeynab mhm. yaram bi am na lu koy dundal cër yëpp cër bu nekk ci doomu aadama rek am na lu koy dundal mu ne xol nag ak roox li nga xam ne moo koy dundal mooy jaam bi saxoo di tudd yàlla subhanahu wa taala rawati nag di wax baat bi nga xam ne mbooleem baat yi moo ci gën a rëy mbooleem baat yi moo ci gën a kawe muy lan baatu laa ilaha illa allah yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man kaana illa allah daxalal janna yonent bi nee na koo xam ne bi ngay génn àdduna baat bi nga mujj wax mooy baatu laa ilaha illa allah moom nga mujj wax nga génn àdduna yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ëllëg yowmal qiyaam di nga dugg aljana te Adja Zeynab gis nga baat boobu muy laa ilaha illallah mm. képp koo xam ne wax nga ko muy baat bi ñuy wax buy wax la nga neen laa ilaha illallah mm-hmm. wax nga ko benn yoon ci sa dund bi nga ko waxee benn yoon ci sa dund fas sa xol bii ñu amul benn buur budul yàlla nga fas ko ci sa xol mm-hmm. ba nga ko waxee ba pare yaa ngi ca la la neex ba nga faatu même suñ la dugalee safara yàlla nañ ci yàlla musal doo doo bokk ci xaalidiina fiihaa doo ca sax hmm. da ngay génn lu tax da ngaa saxal lu sax ku saxal lu sax kenn du ko mbugal mbugal mu sax te saxal nga saxu yàlla subhaanahu wa taala hmm. mooy laa ilaha illa allah kon ngëneelu laa ilaha illa allah kenn xamul nu mu toll hmm. ku dul yàlla subhaanahu wa taala xoolal sayyidina ali ibn abi talibin karamallahu wajhahu dafa wéetak yonent bi alayhi salaatu wasalaam rawatina nag Adja Zeynab laa ilaha illallah bi ngay wax bii bii fii ci xadratul jumaa bi mhm. nga xam ne dañ ci am ndigal mhm. bokkul ak laa ilaha illallah bi kenn wax feneen de as laa ilaha illallah bi ngay wax ci werd bi mhm. bokkul ak laa ilaha illallah bi kenn wax feneen de laa ilaha illallah bi ngay wax ci wasifa bi bokkul ak laa ilaha illallah bi ngay wax feneen de lu tax te laa ilaha illallah di laa ilaha illallah rek lu tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wa bi muy woote ak yonent yi ko jiitu woon yëpp benn baat rek lañ doon wax xuulu laa ilaha illallah tuflixu mhm. xam nga yonent bi woote ne lu mat fukki at ci biir màkka takaalif amul takaalif mooy julli amul mhm. woor amul azaka amul ajmaaka amul benn baat rek ngay wax dana wax ne xuulu laa ilaha illallah tuflixu mhm. waxal laa ilaha illallah amul benn buur boo xam ni jaamu ko dana jëriñ kenn ci dëgg ñàkk ko jaamu di wàññi kenn dara ci dëgg xam nga boo déggee li oustaz wax nag am na ñoo xam ne dañuy wax ne allah allah dañ koy aaye wax baat boobu kese mhm. ñooñu seen xel mooy xalaat ni mën nga ko wax allah allah ban allah ngay wax ban yàlla ngay wax ndax am nañuy jaamu yeneen yàlla mhm. waaye bu dee ñun ñi nga xam ne saxal nañu dara nekku fi benn yàlla amul bu dul mhm. yàlla ni moom allah allah allah allah ndax ñun xam nañ ni kenn nekku fi yàlla rek a fi nekk dëgg la waxuma la sax yàlla mais dara nekku fi yàlla rek moo fi nekk yàlla rek ndax man mii toog neew ma fi yàlla la dafa jël ci leer yonent bi bind yi sallallahu alayhi wa sallam jël ci leer yonent bi bind ma jël ci leer yonent bi bind lépp kon lépp yàlla la moo tax ñun gëm ko pas-pas boobu mhm. Cheikh Tidiane Chérif def ci ñun moo tax Allah Allah mën nañ ko wax saa yu nu neexee te duñ jiital baat duñu teg baat ci ginnaawam duñu wax laa ilaha illa allah allah allah duñu wax allah allah huwa rabb duñu wax dara allah mhm. allah rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu mu doon woote loolu la doon wax qulu laa ilaha illa allah tuflixu mhm. moom la Nuux wax noox yonent yàlla noox loolu la doon wax di mm. yonent yàlla wut loolu la doon wax di te baat yooyu yonent bi doon wax ñëpp yonent bi dafa dugg ci biir néeg bi moom ak Seydina Ali rakkam mm-hmm. karamallahu wajha Seydina Ali ni yonent bi dama bëgg walxulafa ma sahbihi fi kulli yawmin qad wafa loolu tax ñu tuddee ko xadara xadara bi saa yu ñu lalee mbalaan mi nii mhm. cent vingt trois mille prophètes yëpp ñëw nañu fii ci stade bi bokk ak ñun jotaay bi cent bi oustaz Makhtar Sarr ubbee oustaz Pape Kane ni aouzu balaa mu naan billaay dinaa Muhammad Daaka ku mel ni ka nekk ca Thiénaba ñooñu mag ñu yiw ñu ñoo téye réew mi ba dara du fa xew man leen déedéet ca la de waaye boo demee ardul quds baytul muqaddas ay yonent lañ fa suul mm-hmm. te yonent yi waxuma la yonent yi ñoo gën mag ñi mm-hmm. waxuma la yonent saxaaba Cheikh Tidiane dañ ko laaj mboolem awliyaaw yi Cheikh Tidiane leen teg tànk mm-hmm. mooy taajul aarifin yi mboolem awliyaaw yi Cheikh Tidiane leen teg tànk Cheikh Tidiane dañ ko laaj ñu ko yaag saxaaba yi waxuma la yaag yonent de yaag saxaaba yi nu ngeen mel mu ni saxaaba bi gën tuuti ci saxaaba yi te saxaaba bu tuuti amul mhm. moom cheikh mu ni maa ngi moom mi mel ne man may melentaan biy dox ci suuf saxaaba bi mooy piccum përëntaan biy naaw ci kaw ñun ñaar ni mu soree loolu la mu ëppee daraja loolu la mu ëppee dayoo ci kanamu yàlla Seydi Hadji Malick ne saxaaba yi daan ànd ak yonent bi di xeex buuri mhm. mii génnee ci seen gémmiñu fas ya nee na wëli bi nga gën a naw mhm. nee na puurit moomu moo ko ëpp doole ci yàlla puurit moomu moo ko ëpp doole ci yàlla. macha allah. saf na ah? murid moom moo ko ëpp doole ci yàlla kon yonent yi ñu ëpp doole mag ñu suul fii. Mhm. waaye boo gisee fii jàmm rek moo fi am. Mhm. bal du fi tàkk jàmm rek di fi am. Mhm. muy wasifa wi ñuy def suba di ko def ngoon. alaaji Maalik nee na woon innal wasifata lil qurra'i azimatun kadaka iqlibuha fi kulli buldaani xam nga Sénégal bu doon Sénégal Adja Zeynab. su may daaneele. Sénégal yëpp kenn du wusi fa fenn kenn du wusi fa Thiès mhm. kenn du wusi fa Tivaouane kenn du wusi fa Ndar kenn du wusi fa Kaolack Dakar rek la ñuy wusi fa Maodo nee na wusi fa wi ñuy wusi fa Dakar mhm. dana garanti Dakar ak mboolem raison yëpp réew yëpp dana ko garanti mhm. kon loolu mooy njëriñu laa ilaha illallah rawatina laa ilaha illallah bi def ci biir xadratul juma ak wasifa ak werde Adja Zeynab la oustaz Pape Mokhtar macha allah si la jërëjëf ahsanta rafetal nga li nga leeral am na solo defe naa lii ku ko dégg moom suba incha allah fii moom macha allah jërëjëf yal yàlla yokk sa xam-xam. amiin am na solo Oustaz Makhtar. Mm. Euh, ci biir euh, xadara bi dafa am benn laj na maanaam benn kuréel. Mm. boo xam ñoom ñoo yore wàllu culture. Mm. ñoom lan mooy seen taxawaay ci xadara bi. waaw jërëjëf euh, Seyda laaj boobu am na solo waaye balaa ma cee dikk rek ma jaajëfal. jëfal Pape Oustaz Pape Kane jaajëfalit. ajaratu ajaratu Maguette Ndiaye. Mm-hmm. jaajëfalit Pape Makhtar Sylla macha allah yi ñuy indi am na solo. day am ay yu ndaw rek yu ma def ci euh, yi fi jàll mooy dégg naa Oustaz Pape muy wax ni am na ñu naan waruñoo tudd yàlla di wax allah allah euh, dëgg la bëri na bindkat yu ci bind ba ci fii ci réew mi sax am na bindkat bu bindeey di waxeey ne tudd yàlla naan allah allah yooyu xamuñ ko woon jamono yeneen bi ak saxaaba yi kon loolu bidaa la bi koy wax nag dama yaakaar ne boobu jàngagul alxuraan xëy na dafa jàngoon arab rek di bind waaye xulillah gi nga wax léegi su ma darhum fi xawdihim yalaabuun mm-hmm. loolu moom du waxuma sàmm du waxuma demba mais rabbul izzati wal jabarun moo digle ñu wax baatu allah mm-hmm. waxal qul wax waxul ne qul yaa allah waaye dana ko qulillah mm-hmm. beneen buy gën a dëggal ne mën nañoo tudd yàlla ci baatu allah allah xadiisu yonent bi la sallallahu alayhi wa euh, boo demee ci euh, saxiix bu imaam muslim xadiis cent quarante huit numéro cent quarante huit anas ibnu malik moo nettali xadiis ba saxiix imaam muslim xadiis mhm. quarante huit anas ibnu malik moo jëlee ci yenent bi sallallahu alayhi bi ne laa taqumu saatu xataa mm. laa yuqaala fi l allah allah mm-hmm. waxuma sahib imam Pape de waxuma sahib bu Zeynab de mais sahib imam muslim xadis mm-hmm. bu wér cëng la boo xam ne bu nit demoon ba taxta sara génn munu koo dàq bu yéegoon ba arasu wàcc munu koo dàq yenent bi moo ne àdduna bi du tukki àdduna bi du tukki mhm. feek ci kaw suuf am na ñuy wax baatu allah allah maanaam bu demee ba yàlla na ma tukkal àdduna bi ñi doon wax baatu allah allah mhm. ñépp la yàlla jël seen bakkan soog di tukkal àdduna te yenent bi waxul waxul rek xataa laa yuqaala allah taxa waaye dane allah allah baamtu ko loolu noonu la xadis bi gën a sax bi gën a wér bu gën a dëgër bu ñuy layalee xadratul juma bi ñuy bëgg amal suba fii ci stade Amadou bari bi te bu ñu waxee laa ilaha illallah ba mu yàgg ñu naan allah allah xadis boobu yi gën a wér yi koy layal la bokk bu yenent bi waxee ba noppi nag déglootuñ waxuma Samba ak waxuma Demba ah, yenent yàlla Muhammad lañ gëm ba xam mm-hmm, mm-hmm. jàngal bañ lay wooyee docteur ak professeur yow yaa xam mm-hmm. mais ñun yeneen ci yàlla Muhammad moom mooy docteuru docteur yi. Mhm. mooy sëriñu sëriñ yi. mooy professeuru professeur yi. dëgg la kooku nag bu waxee xadis bu wéree. Mm. la imaam Malik waxoon rek la ñuy wax. waaw. isa saxa xadis foofu madhab yi. su xadis wéree rek man Malik ca laa ngoy. waaw dëgg bi nag moone ne àdduna du tukki tak ci kaw suuf am ñuy wax allah allah. so suba ci ngoon boo teewee fii da nga gis mbooloo mu bari incha allah ñu naan allah allah. Mhm. yàlla bu demoon ba nam ma tukkal àdduna bi. mbooloo moomu kenn dootul desati ci kaw suuf yàlla nag sukkandiku ci ñi nga xam ne nii duñu tudd yàlla mhm. ci ñooñu lay faate àdduna bi mhm. lay tukkalee àdduna mhm. loolu tamit lu may dolli la ci Oustaz Pape li mu wax beneen bi mooy doolee xadratul jumaa yegg na ci tarixa bi ñu yaxal ne ku ko bàyyi ñetti yoon te amoon ngant war nga yeeslu ji ñett xadratul jumaa nga toog amoo benn ngant demoo xadaratul jumaa ba muy ñetti yoon mhm. war nga yeeslu ji iqtibaasan ci xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man taraka salaasa jumaatin mutawaliyatin mhm. jumaatin mutawaliyatin faqad nabada al islaama waraa dahri mhm. yonent bi ne képp koo xam ne jël na ñaari aj ñett ajjuma yu tegaloo nga bàyyi ko te amoo benn ngant nee na sànni nga lislaam ci sa ginnaaw yi ginnaaw ñàkk julli ba muy ñett àjjuma mhm. mu ne lislaam sànni nga ko sa ginnaaw maanaam bokkatoo ci mhm. yeneen xadis yi ne boo bàyyee benn àjjuma sa xol bi ceer bi waw na bu ñett la benn bi ñuul na ñuul mhm. nga bàyyi ñaari àjjuma ta tey ko sa xol bi bu doon ñett xaaj la ñaari ñuul na nga bàyyi ñett àjjuma sa xol bi ñuul kukk léegi nag ci foofu noonu le la ñu jëlee ku bàyyi ñett xadratul jumaa te jàpp wérdu mhm. te am te amoo benn ngant danga nga war a dem yeeslu ji bokkatoo ci tarixa bi loolu lu mat a bàyyi xel la mhm. beneen bi euh, Oustaz Pape na bi zikri laay tadaadu dunub bi ko waxee dama xaw a sax tuuti waaw yaa ngi ñu bari <laughs> bi zikri laay dëgg la étape la. Mm-hmm. ay niveau la. Mm-hmm. ay dimension la. boo waxee arabisant bu mel ni man buy jéemantu bu ko dégg day daw dugg ci roon lal gi. Mm-hmm. ne kii moom balaa yàlla wàccee mbugalam. xaaral ma daw. yàlla digg digle tudd yàlla ba noppi nga ne tudd yàlla ci la euh, bàkkaar yi di yokkoo. Mm. mais fekk boo ko firee tudd yàlla. doo ko dégg mais fàttaliku yàlla nga koy firee. dëgg la. bi ci fàttaliku yàlla. gannaaw boo demee ba am connexion sa borom direct. tas daadu dunub sa bàkkaat day yokk ndax da ngay déconnecté ak sa borom. Mhm. ndax góor yàlla yi seen bàkkaar yi gën a mag dañ doon wax ni mooy laps de temps bi ñuy toog te tudd. ñu yàlla yàlla. Mhm. mooy bàkkaar bi gën a rëy. Mhm. yeneen bi xaal boobu la Sayyidatuna sa doon waxee ne. fu mu tollaan day fàttaliku yàlla. wallaay ndeysaan. waxul pas yàlla ci bépp xaal. ndax bu nekkee ci wanaag ak yu mel noonu du tudd yàlla. mais fàttaliku yàlla ci xol même boo nekkee ci biir wanaag ba wàccu la. mu ne yenent bi ci bépp xaalam mhm. sayyidatuna Aïcha mu ne danaan fàttaliku yàlla léegi foofu boo fa yeggee mooy an tazkura allaha bi qalbika mhm. mooy léegi nekkatoo di tudd yàlla bi lisaanika salaam mhm. yi waaye tazkurullaha bi qalbika léegi yaa ngi tudd yàlla mais sa xol bi te loolu mooy mooy dayob niveau bi jaam bi di yegg ci wàllu tudd yàlla dëgg la boo demee ci suuratul ahzaab mhm. suñu borom bi muy tudd innal muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati mhm. ba muy jeexal aaya bi wa zakirina allaha kathiran wa zakiraat la mujj tudd mhm. ndax moom mooy moom mooy frontière ba bu doon septième étage la dañ naan yegg nga ba ci septième ba kon nit ki bu demee ba yegg foo xam ne xolam bi mooy tudd yàlla te boo demee ci téere bu tudd al anwarul qudsiya fi maarifati qawaidi suufiya mhm. imaamu Shaaraani mi ngi leeral wax jooju noonu le mooy dafa am benn qaayida bu mu tuddee la zikra baada mushahada la zikra baada mushahada mhm. boo demee ba am mushahada ak sa borom foofu noonu le teggi ni mooy nga noppi mais nekkatul wax mhm. da ngay woo yàlla di woo yàlla di woo yàlla ba am teewlu sa digganteeg sa borom ci sa xol léegi nag foofu noppee war léegi nag di tuddee yàlla ci sa xol bi mais doo waxati doo waxati. comme nitu zahir bi dem di tudd yàlla bay dugg ci wanag wi ñu ne la noppil sañatoo faa tudd yàlla. Mm-hmm. am na koo xam ne tamit mi ngi woo yàlla. yaa allah yaa allah ba am mushahada diggante me goromam mu ne foofu tegginu xadra ba bala mu laaj mooy noppi. la zikra baada mushahada boo demee ci xaayida boobu leeral na loolu ba nga mën ko comprendre ci sa bopp mu leer nañ mm-hmm. ba rek nga bañ a ci tudd yàlla la bàkkaar yi doolee ko mhm. ba yow nga jàpp ne dañ ne la déet waratoo wax laa ilaaha illallaah wala mhm. allah allah déedéet mhm. yow sa niveau mu ngi toll ci tudd yàlla yor kurus jàng alxuraan ah loolu sa niveau la léegi nag da ngay góorgóorlu di yéeg di yéeg ba yegg ci boo toogee benn minute sa xel mi demul ci yàlla nga jàpp ne bokkatoo ci lislaam loolu étape la loolu lu mat a bàyyi xel la beneen bi Oustaz Pape waxaat stade bi ku fi teew boo ñëwee ñu ne la toog nga ak bi sallallahu alayhi wa sallam euh, boo waxoon ne su ma demee stade ba toog maak yeneen yenent bi su ma ñëwee fase naa la nga jóge fi pase mi tàbbiwul mhm. ndax bi nga ñëwee fekk nga ko fi ndax fekk nga ko fi mhm. waaw léegi man maxtaar saar mën naa toog fële ne mais Oustaz Pape yenent bu faatu depuis mille ans yu teg tëdd Madinatul Munawara ngeen naan da ngeen koy fekk stade Amadou Barry bu Guédiawaye mais loolu loo sigul mais a ngi xaddara fii ci stade bi am ñuy xadara fële ca Tiwaawan am ñuy xadara fële ca Kaolack am ñuy xadara fële ca Medina Gunaas même heure bi léegi xanaa kon ña nekk Tiwaawan ak ña nekk Medina Gunaas ñoom yenent bi nekku fa. sallallahu alayhi fekk yenent bi boo koy bëgg a àtte ci sa xel xamoo kan mooy yenent bi gannaaw bi mu faatoo. sallallahu alayhi wa sallam. yenent yàlla Muhammad moo ne. Mm. ma min ahadin yusallimu alayya illaa radda allahu alayya ruuxi hatta arudda alayhi salaam hadis la boo xam ne benn mu hadis dàq ko kenn ba ci ñi nekkul mu hadis sax ñoom bun baasum bërki dee mi nangu nañ ne hadis bi wér na ma jëlale albani mi ci gën gën a góorgóorlu yenent bi na ne amul kenn ku naan ma assalaamu aleyka ya rasulallah lu dul ne yàlla dana ma delloo sama ru ma ne la wa aleyka salaam ku faatu dana fay nuyoo wa aleyka salaam. Hmm. ba tudd delloo ruu. moo tax boo demee ci Fatxul Baari. sarhu Sayyil Buxaari. Ibnu Hajar dafa am problème ci xadis bi. pour mën ko dégg. aw juh yu nekk dikkee na ko di songu xadis bi. nan lañ koy comprendre ruu gi nuñ koy delloo xanaa benn minute lay doon nit ñi waxandoo asalaamu aleyka ci àdduna bi nu mu toll. wax naa ko bis ma ne ko moo ne de Ibnu Hajar bu ñëwoon ci Cheikh Ahmad Tidiane yi mu firil ko ko yomb. ndax danaan biig maa ngi moom a nekk yenent yàlla Muhammad ba léegi ay nit ñu ngi koy gis jëran Seydi Ahmad Tijaani Cheikh Alhaaji Malik moo ne aaxidu wirdihi ani rasuli sallallahu alayhi wa sallam muti alladi yarjuu kulla suuli tabban li man ankara hada qiila wa ma lahu dalilun illa qiila hmm. mu ne wérdo wii tabban la wax tabban hmm. toskore mhm. dana wérdo wi mhm. Seydi Ahmada Tidiane mi ngi ko jëlee ci maamam direct mu ne nag wax jii ma wax ku ko weddi alkane dal ci sa kaw man alaaji Malick maa ko wax ne Seydi Ahmada Tidiane yenent bee ko feeñu jox ko tarixa bi mu ne nga weddi ko ba noppi amoo benn preuve boo ma tegal lu dul nee nañu imaamu Shaaraani wala imaamu euh, Suyuuti daf ko bañ ba bind téere pour leeral tomb boobu noon rek téere boo xam ne nii lim ci leera rek mooy gis yenent bi ak malaaka te imaamu suyuti même ñi nanguwul tasawufam nanguwul nañ ko manam hadis ci alfiyaam bu rëy ba moom imaamu suyuti mhm. saxal na lu mat juróom-ñaar fukki wali yoo xam ne gis nañu yenent bi gannaaw bi mu génnee àdduna lool moom waxuma la sax euh, téere yi lañ ci wax mais Sénégal gi mhm. sëriñ Maodo si mu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz oustaz Pape mi ngi koy wax keroog nee na tiwaawoon la toog ci xadara yenent bi feeñu ko sëriñ Maodo si mu gis ko jëhran mu gis ko jëhran mm-hmm. ñi yàlla gën a may ci senegal ci jamono jii ñu toll ñuy dund ma xam leen ñuy gis yenent bi moom ci la bokk sëriñ Maodo si du benn yoon du ñaari yoon am na boo xam ne Italie la ko gisee te ki ma ko nettali ma nga toogoon ak moom foofu mu jox leen benn dog mhm. ci jawharatul kamaal ñu koy jàng bi dog bi yeggee mu yuuxu naan laa utiiqu laa utiiqu attanuma ko attanuma ko nee na bi ñu génnee bay dem ci oto bi ñu laaj ko mu ne yenent bi moo ko feeñu ci bibliothèque bi nekkoon ci seen kanam sol yére bu verte manto bu verte la yenent bi sol waaw léegi yow wax dëgg fa yàlla mhm. boodul boodul boodul Euh, gis yenente bi nag bul ne kenn mënu koo gis mhm. ma million rek bul ne kenn amu ko am na ku doon milliardaire nga tëdd gént yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi te lii layal gis yonent bi ci sunna mooy yonent bi li mu wax ne man raani fil manami fa sa raani fil yaqada mhm. képp ku gént gis ma danga ma gis ci yeewu hadis boobu dafa wér céng yonent bee ko wax sallallahu alayhi yonent bi waxee ba noppi na ne mën nañ maa gis ku ma gént gis ma am na ñenn ñi dañu ne yomal xiyaam la ñu ne mais loolu moom même boo géntul gis ko sax da nga ko gis ñenn ñu ne boo demee ba sukkuraat la ñu ne ah ba tey kon ba tey gis nga ko rek. Hmm. ñu ne da nga koy gis faatu. léegi kon lan mooy dàq booy sukkuraat nga gis ko faatu ak nga gis ko wéy di dund. lan moo koy dàq. léegi nag ku mënta comprendre ne yenent bi bi mu faatoo dañ koy gis. Hmm. comme ni nga xamee ne noonu la ñuy gisee jinne te du ñëpp a koy gis. Hmm. yàlla moo wax ci alquran ne jinne yi ñoo leen di gis mais yéen du ngeen leen gis te am na ñuy gis jinne yi mm-hmm. mais du ñëpp koy gis mm-hmm. xaal bi jinne yi nekk malaaka yi nekk fa xaal boobu la yenent bi nekk gannaaw bi mu génnee àdduna du ku ne koy gis waaye foo ko tuddee mu dégg ko boo ko nuyoo mu fay la mm-hmm. moom sallallahu alayhi wa sallam ahmad rifaa yi dafa jugee koo dëkkam dem ziyaara jinent bi toog ci raw doom sadd ñaari bayit ne ko dama la sori woon ñëw di la yónnee ay ziar tey nag yónneewu ma de tey maa ñëwal sama bopp wa hadihi nawbatul ashbahi qad xadarat mhm. tey jëmm ji moo teew fam dut yaminaka kay tuxda biha shafati ma bëgg rek sa day ndeyjoor bi génn rek ma fóon ko bi kàddoom di daanu moom Ahmad Rifaayi bàmmeelu yenent bi dana tayyi xar yenent yàlla Muhammad génnee loxoom bu tedd ba nuyu ko mhm. mais man mi amul loolu noonu dama ko koy nangul. Mhm. di ko nettali. Mhm. boo xamee Ahmad Rifaayi mooy xa mooy kan danga xam ne loolu jomb ko. tarixaam taalibe bi bis bu nekk quarante mille salaatu ala nabi lañ doon def. quarante mille ñeent fukki junni mooy seen zikkar ci julli ci yeneen bi dem na ba im Ibnu mi doon am problème ak taalibe yi naan waaw léeg-léeg dañuy dem di tudd yàlla di zikkar bay dugg ci safara lu ñu lakk mu doon jiiñ sax naan affaire seytaane la. mais kuy julli ci yonent bi ba dugg ci safara doo lakk alhamdulilah. <laughs> loolu lan la ci yëfu seytaane am. moo tax Abdoulaye la hariri al bi mu koy tontu ci al-maqaalatu sanniya fii kasfi dalaalat Ahmad ibnu Taymiya mu ne ko amee ah, def ko xol bu fekkee yëfu seytaane la mais cër la. cër la pour wax la ne rek Seydi Ahmad Tijaani. Mhm. bu ñu lalee malaanu wasifa yonent bi teew loolu mbabba daara yi rek ñoom ñoo koy weddi waaw mbabba daara yi ñoom ñoo koy weddi. waaye xam-xama ko saxal yeneen tibee ci d'accord wax ne man naa am. moom sallallahu alayhi wa sallam. laaj ko sax aarifuna billahi sa matar ñi xam yàlla am fu ñu toll ci moom mais mun nañ fekk safara mu tàng ñu koy laal te duñ ko yëg ay dimension la loolu. du jeex. waaw mhm. ah, te man mii su ma demee laal safara damay lakk. man mii su ma ko laalee lakk. waa kay waaye am na ku koy laal du lakk. ndax mhm. ruuxam fa mu toll tax. Mhm. loolu tamit lu mat di bàyyi xel. kon ngir ñëw ci sa euh, laaj bi kuréel bi. wala. mbooloo mi ab naa wax hadrati tijaaniya sëriñ Abdou mi nga xam ne moom moo jëmmal mbooloo mi xam-xam daf ko yàgg a ñor bëri na ay arabisants yu jàngi bitim réew sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amin moo leen lijjantil seen bourse ñu dem jàngi bëri na ñu yor fii ay daara di jàngale sëriñ Abdou moo leen finance ñu tabax daara gannaaw bu leen jàngaloo ba ñu jàng ba am xam-xam yor seen daara du ñu jeex ñu baree baree bari xam-xam yàgg koo ñor mu yàggal ñaax ndaw ñi ci xam-xam ci bind ci góor góorgóorlu ci jàng bi lii taxawee nag ñu gis ne nekkul bis boo xam ne dañuy dajaroo ñaanal dajaloo ñaanal réew mi ak def hadratul juma waaye war na am message boo xam ne ni dañ koy tasaare pour mbokki taalibe yëpp jot ci jottali ko seen yeneen i mbokki taalibe daaw lañ ko door ñu taxawal benn laj na bu ñu tuddee laj natu saqaafiya muy lépp lu jëm ci wàllu xam-xam ci xadara bi. Mhm. kuréel boobu di ko saytu. Oustaz Pape Sylla ci la bokk Oustaz Pape Kan mii ci la bokk ak yeneeni boroomi xam-xam. Mhm. ren mooy ñaareelu yoon bu ñuy def lu mel nii. lii ñu yor nii mooy li ñu génnee ren. Mhm. benn bunt la bu nekk ci rima euh, bi Cheikh Al Hadj Omar di waxee ci zikkar ak njëriñ yi ci nekk. bunt boobu lañuy ñu jukki xadiis yi ci rot yëpp ñu tax taxriij ko wax yan téere la rot mhm. wax boroom xam-xam yi yan àtte lañu ñu àtte xadiis yooyu ñi muy tudd ci biir bunt bi nekk ay nitu yàlla di boromi xam-xam ñu tarjamaal leen mhm. wax ñooñu ñooy kan ban année lañu gane àdduna lan lañ leen seedeel ñenn ñi ci seen maandu ci seen ragal yàlla ak yenn yoo xam ne ni dañ ko ci dolli ngir gën a leeral bu mu yeggee ñu tuddee ko toxfatu zakirin mhm. lil ixwaani tijaaniyin incha allahu taala ñi ngi am yéene bu xadra bi weesoo ñu gën ko yaatalaat mhm. gën ko jëmmalaat mhm. ba def ko mu nekk téere pour mbokk yëpp jot ci incha allahu taala waaye daal ngir tënk laaj boobu noonu le laj na bi kuréel la boo xam ne ay ustaada ko seq ay boromi xam-xam comme émission bu mel nii ñi fi teew yeneen i émission ña fay teew ca daayira ya ca jàkka ya ñu bind benn li ñuy tuddee mën nañ ko tuddee bu doon àjjuma la ñu ne xutbatul mu waxaada mhm. benn xutba boo xam ne ñëpp a koy waxandoo ñëpp a ciy maase mhm. loolu tamit la ñu bind euh, wax ngëneelu zikkar mhm. doole ji mu am yenent bi dem na ba wax ne dee leen tudd yàlla aksiru min zikrillah hatta yaqula al munafiquuna innakum muraun mi ngi ñëw ci biir document bi dee leen bari lu ngeen di tudd yàlla ba naafeqi naan ñii dañuy ngisal li ñuy def yàlla taxul mhm. yenent bi mun ne yegg leen foofu di tudd yàlla ba ñu naan li ngeen di def yàlla taxatul léegi nag loolu noonu le ci euh, tënk sa laaj boobu noonu le mhm. mooy lajnatu saqaafiya yàlla dogal ñu nekk ci bopp bi mhm. waaye ren ñu jàppalante ceeg waa Tiwaawan muy jamiyatul fatih bi nga xam ne Serigne Babacar Lo moom moo ko jiite ren euh, boo ubbee document bi ndoorteleeg tëjtali mhm. ñoom ñoo ko def ñoo ko saytu wax ngëneel yi nekk ci zikkar ak xadara mam Cheikh Al Hadj Malick giñ ciy ñaaxaate mhm. Cheikh Al Hadj bind na ci euh, téeréem zajrutul zajrul qulub mhm. di wane ne feeg yaa ngi dund nañu la fekk ngay tudd yàlla sunu borom laaye ja yàlla wax sunu borom ne tudd yàlla mooy dalal xel Cheikh Al Hadj indiwaat ko loolu boo ubbee document bii di Tuhfatu Dhakirine ci ndoorteli da ko fa fekk ak li Cheikh El Hadj Abdoul Aziz wax. wane ne ku tuddul yàlla koy tudd. ah ku tuddul yàlla kan ngay tudd. waaw xanaa tudd ku lay may xaalis. xam nga liy wane doole tudd yàlla boo ñëwee ku ku ko may xaalis. yàlla. <laughs> waa ji bi ñëwee ci yonent bi di ko laaj ne ko sallallahu alayhi wa sallam. charia li ma toog li ma toggoo dafa bari. Mm-hmm. wax ma loo xam ne dama ciy sax su ma faatoo am aljana lu mu ko wax. Mm-hmm. laa yazaalu lisaanaka ratban min zikrillah dëgg la. loolu mi ngi ci biir mi ngi ci biir document bi. gis naa ko ci. yonent bi wax ko. Mm. sallallahu alayhi wa sallam xam nga document bi maa ci njëkk am. <laughs> waaw yaa ci war a njëkk am ndax yaay <laughs> eh, gis nga Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ci laay daanelee. Mm-hmm. dana zikrul ilaahi. lil qulubi quutu. Mm-hmm. in lam taish bihi fa hiya tamuutu. mu ne dajaloo di tudd yàlla ak wéet di tudd yàlla bu mu ci day dundal xol. te balaa nga gën a mën a gën gëm wax jooju noonu le nga ñëw ngoonu àjjuma ci xadratul juma bu mel ne bii ñuy amal fii ci stade bi nga toog gis mbooloo mu takk moomu mhm. di baagante baatu laa ilaha illa loolu day dundal xol mhm. même ku dul jullit bu gisee image boobu noonu la bégee ko ku dul jullit waxuma jullit de mais ku dul jullit gis mbooloo mu tol noonu toog di waxandoo benn baat di laa ilaha illa loolu ku ne koy béggee mhm. moo tax maam da baax ne tudd yàlla lil qulubi quutu mhm. dafay dundal xol dëgg la ne in lam taish bihi nag fa hiya tamuutu waaw waaw xol bu demee ba dundeetul tudd yàlla day faatu mhm. mu ne ahyu qulubukum bi dhikrillahi fii kulli waqtin yaa ibadallahi dëgg la da leen dundal seen xol yi ci tudd yàlla ci waxtu bu nekk yéen jaamu yàlla yi lan moo tax mu ne dhikrul ilaahi sulamun li raaqi li xadratil xayil azizil baaqi sulamun li raaqi Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz nee na. tudd yàlla escalier la pour ku bëgg a yéeg jëm ci yàlla. dëgg la ku la gën a bari lu muy tudd yàlla moo lay gën a gaaw a yegg ci yàlla. moo lay gën a jege yàlla tamit moo lay gën a jege yàlla sunu borom. Mhm. mu ne escalier la buy yeggale nit ci yàlla. Mhm. te képp ku yegg ci yàlla léppi àdduna soof la. waaw léppi yàlla saf la. dëgg la kon ñi ngi invité mbokk yëpp. ci ñu am occasion ci ñëw ci jataay bu mel nii toog tudd yàlla mhm. yenent bi wax na ne yàlla sunu borom nee na ku ma tudd ci sa bopp ma tudd la mhm. ñu ne mooy tudd yàlla ci yàlla ku ma tudd ci mbooloo ma tudd la ci mbooloo mu gën mi ma tudd mhm. mooy layal tudd yàlla ci mbooloo ak tudd yàlla di ko biral ci kaw am na koo xam ne na mën ngaa tudd yàlla mais waroo ko wax ci kaw am na ku ne war nga koo mën a wax ci kaw mais doo ngeen ko waxandoo yenent bi na yëpp mën naa ne sallallahu alayhi wa sallam ñun yenent bi lañ jox suñu nopp ah di ko déglu Seydi Ahmad Tidiane yenent bi la déglu mm-hmm. yenent bi wax ko Seydi Ahmad Tidiane wax ñu mm-hmm. léegi nag kenn du déglu Seydi Ahmad Tidiane ba noppi na di déglu am maire Thiam bu nekk ci côté bi. <laughs> mën nañu ko ko. ñu koy ziyaare bu baax bu toog fële naan la déet waru la am. Mm-hmm. te Seex Ahmada Tijaani yenent bi wax ko lu wér. sallallahu alayhi wa ah, sallam ah yenent bi yàlla wax ko. loolu nag ku ci jot. dootoo déglootu wax juñ lay wax nga koy jëlee ci keneen mhm. kon loolu mooy am euh, ab naaw tiijaan tijaaniya mhm. waaye loolu mooy lajnatu saqaafiya yaa sayda dëgg la leer na oustaz Makhtar jërëjëf euh, Adja Maguette oustaz Pape maa ngi ñëw ci yow euh, Adja Maguette yan yëre ngeen sàkku ci suba kuy ñëw pour mu sol ko ban couleur yëre waaw Adja Zeynab mooy dellusiwaat tuuti rek mhm. dañ ne tenue blanche exigée pas dañ ne exigée dañ ko mhm. jigéen ñi nag macha allah dañuy weex taal mais góor ñi rek ñoo ñu sonal <laughs> waaw. loolu mhm. tam maa ci lancé appel. Mhm. ñu gën a góor ci tenue blanche bi. bañ nañ ko ba autorité bu ñu dem. même le gouverneur. bi ñu demee dama ne ko tenue blanche exigée mu ree même le préfet la même chose mais dañ ci insister bëgg nañu daal na ñu weex taal. nañu weex tàll mhm. Adja Zeynab may ñëwaat tuuti rek ci niveau bi am ci plateau bi mhm. parce que dafa am solo dëgg la nit ñi di xam mhm. lan mooy tarixa bi ci lan lay dox ci lan lañ koy dundee ak saxaaba yi ci nekkoon lan la ñuy jëriñ ak naka ngay def ba intégre ci ba sant ci sa bopp c'est important ndax lu mel ni dafa am solo boo gisee ma bëgg a dellusiwaat tuuti dafa am benn chrétienne bu ñuy wax Clara mu dëkk ci suñu parwaas bi daaw dafa fekkee xadaratu jumaa bi yàlla xam na ne gisuma ko mhm. euh, démb mu ñëw ne ma Adja sama carte d'invitation d'honneur laa jël si ma ne ko Clara bu ma jommal bokkuñu yow au nom du père nga mu ree <laughs> ne ma pourtant daaw maa nga fa woon mu ne ma Adja yiw fu mu nekk rek kenn ku nekk war nga ko jëli mhm. ndax daaw ba ma jógee ca xadara ba ba ñibbi mhm. li ma sentir rey na te donc mënu ma la ko wax ren nag dama bëgg sama invitation d'honneur mhm. ma yëkkati officiel jox ko ne ko incha allah tenue blanche exigée mu ne ma aw ma yëre bu weex nag mais dinaa ko uti ci kaw loolu Zeynab boo gisee Adja Kala dugguma woon ci début bi bëgguma bu ma duggoon ci kala rek la ma message ma bëggoon a lancé du ma ko ci taxawaayam ci tarixa Seydina Cheikh bi ci taxawaayam ci kër Seydi Hadji Malick mm-hmm. kala kenn mënu ko fay buy wax ci xadaratu jumaa bi sax da ngay sentir euh, émotion bi mu am bi ñu demee bi passé def ne damay yendu si ak forte délégation noo leen ko bëggee ak foo leen ko bëgge te loolu yaakaar naa dafa am solo di nuyu itam de passage soxna maam pharmacie di kenn ci sëriñ Mouhamadou Fata Sarr di génn wàllam di léppam ak soxna umu bu Asi Mansour mhm. boo gisee soxna umu Asi Mansour bëgguma sori ci moom dama dund ak yaayam muy soxna Asi mhm. doon dem ak moom fu nekk su ma koy wax sax eh, sama xol day tooy kon di ñaan yàlla mhm. daal yàlla nañ koy fekk ay at yi at bare bare bare wax dëgg yàlla damay ñëwaat tuuti ci euh, oustaz Matar li mu wax hmm. dama am sama benn xarit bu ma envoyé benn vidéo won ma ay jigéen ca fees ñu toog ci malaan di wusi fa keroog dama joom bi ma ne waa jigéen am na fi mu ne ma boo demee fees jigéen ñi dañuy lal malaan wusi fa à part mu jaaxal ma lool ma togg kilifa diine boo xam ne bokkuñu tarix mu ne ma ajaa gis nga astaghfirullah alazim alazi la ilaha illallah wal xayul xayum hmm. euh, salaatul fatihi jawharatul kamal moo ngànk réew mi mu ne ma yéen nag da ngeen di ay ndaw te xam comprendre leen te du ngeen comprendre mu ne ma tarixa Seydina Cheikh tarixa Xaadimu Rasuul ak yeneen tarixa yëpp benn lañ da ngeen cey gën a fës rek nag ëpp ñu ci sañ-sañ ndax fa ngeen bokk waaye ñun dañ li ngeen di wirde dañ koy wirde mhm. kon loolu yaakaar naa dafa am solo ndax nag yombul ah chance la nag yàlla boole ñu ci njaboot gi chance la. alhamdulilah ndax dama naan sam maam da daan wax wóorul sax nga nekk bañ a nekk taaliba Cheikh. ndeysaan da daan wax lu waaye am doy na jëlal waaye man Malick doy na ma ak Cheikh kon ñuy santaat yàlla di lancer waat appel. Mhm. tenue blanche exigée. Mhm. Euh, yaa oustaz. ngeen demee ci seen suñu mbokk yu ustaas ngeen waxtaan ak ñoom ak góor ñi. <laughs> man de duma may kenn dara bunt bi moom dinaa ci taxaw. mbaxana yi na weex na dàll yi weex na mbubb weex. <laughs> ñi ngi wax ca kaw nag. na weex tàll sijaada it kuy ñëw na nga bokk sa sijaada naam sax jigéen ñi taxaw nañu takk nañu ndax sëriñ Abdou def ne woon mu Mouhamadou Fata Sarr soxlawu ma projet résultat la soxla. tey basang bu fi lale ci biir ba ci biti jigéen ñee ko def ci seen doole ak ci seen kàttan ak seen pas-pas mhm. ak taxaw bëgg a jëmal bés bi mhm. bëgg a yëkkati drapeau Seydina Cheikh muy falambe ca kaw mhm. d'accord boo gisee bisu tey bi nag ñu ci ci rendre hommage moom jàll na Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine ku orientation bi mu amoon ci ñun Zeynab yar bi mu ñu yar ci fulla ci fayda ci gëm sa bopp ak ci mbaax sëriñ Abdou ku mu séqal teral na la sëriñ Abdou ku mu séqal jàngal na la sëriñ Abdou ku mu séqal kune ne defal na la loo xam ne nii. Mhm. boo génnee da nga soppeeku. te yaakaar naa ne loolu la soxla ci ci ci ci ci kilifa. Mhm. te loolu lañu ñu ànd moom di ñaanal nag yàlla Mouhamadou Fata Sarr. Mhm. ndax lii mu liggéey ci stade bi cuune mënu ko ah. te kuñ ko joxoon doo ko réussir yàlla suturaal ko nag ba yàlla may ko lii jaarale ko ci loxoom mhm. ñu koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla suturaal amin amin Adja Maguette asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah macha allah am na solo am na solo moo tax xaaral ma laaj oustaz Pape Kane lu tax yére bu weex yére bu weex lan lay représenté ci islam. waaw waaw waaw waaw euh, Seyda Zeynab couleur sax en général xam na soo daanelee rek dañuy dem ba HLM immeuble rajo Dunia jàkko jokkoo ak waa régie bi ndax euh, journal bi nga xam ne dina am benn waxtu bu jotee Abdoulaye ñu jokkoo ak moom mu jox nu titre yi incha allah léegi couleur mhm. euh, da xam ni charia mm, daf ko bàyyi xel alquran daf koy tudd couleur bi njëkk waaw mooy tasurru nazirin mm. waaw day bégloo kuy xool boo dee xool mhm. couleur daf lay attiré alquran a ko wax nag mhm. innaha baqaratun safra mhm. faaqiun lawnaha tasurru nazirin mhm. ci baqara bi yàlla utloo banu israil nag daf leen ni ut leen nag wu xonq na xonqaay ba fés ba nga xam ne ku jàkkaarloo ak moom rek sa xol sedd donc couleur dafay seddal xol fa tabarakallah eh, mu bokk tam ci bu weex bi mu bokk ci yonent bi bëggoon lool sallallahu alayhi wa sallam yonent bi amoon na raaye euh, ñaari raaya ñaari drapeau hmm. bi comme boo demee présidence fële wala palais day am bu mag ak bu ndaw hmm. bi amoon na drapeau bu mag ak bu ndaw mag bi dafa ñuuloon drapeau bu mag mag bi waaw muy hmm. ah, mooy liwaa bi raayam mooy bu ñuul bi mais liwaa bi muy bu ndaw bi dafa weex saxaaba yi ko xam yëpp comme ibnu abbas même Aïcha radiallahu anha mhm. ñu ni yonent bi kaalaam bi mu daan kaalawoo mbaxana mam daan jiital ca mhm. suuf toujours day weex sallallahu alayhi wa mbaxana mi toujours moom dafay nekk mbaxana moo xamante ni mu weex lay doon mhm. mu waxaloon boppam ni xadis bi ibnu abbas moo ko solo soo demee ci chamail di nga ko ci fekk bu suyuti bi mu doon tudd léegi nee na yonent bi sallallahu alayhi dafa waxoon ni yéen jullit ñi dee leen sol yére bu weex te bu ngeen amatee ku faatu ngeen di ko sàng yére bu weex. d'accord loolu moom leer mhm. sol yéen ñii dund yére bu weex. Mhm. te bu ngeen amatee ku faatu ngeen di ko sàng yére bu weex. comme nag tasurru nazirin mhm. ba pare mina shamail yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko fonkoon daana sol yeneen yére comme manteau bu verte bi mooy wax. net nañ ko lu bari yu bari da ko daan sol. mais dafa bëggoon couleur bu weex. couleur bu weex d'accord ñun ñu dem xool waa Régis. waaw Abdou ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax. naka foofu mbaa yéen a ngi ci jàmm. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax yéen tamit xam naa ne yéen a ngi si jàmm jamono ji yéen a ngi foofu ci géejawaay. waaw ñun ñu ngi fii macha allah tey moom defe naa ni ruux yi am na lu ñu yëg lu baree bari ci fi mm-hmm. jib ci ay kàddu. Mm-hmm. jëm ci tudd borom bi subhanahu wa taala te suba ñu fas yéene koo jëmmal fii ci stade bi. Mhm. mu nekk njëriñ loo xam ne dina law ci Sénégal yëpp law ci àdduna bi sax nag. incha allah macha allah day am solo lool baax ci réew mi ndax loolee moo téye réew mi. Euh, kon xam naa ajaratu Zeynab dañuy fas yéene dikk ci tey lii gën a fës ci bopp xibaar yi benn waxtu une heure. kon bisimilah ci titre waa bokk na ci niki tey jii sunu mbokki jàngo yi bi den màggal lu jëm ci ascension di bi nga xam nag ci la euh, yonent yàlla Jésus Christa di yéege woon ginnaaw ñeent fukki euh, fan bi li nga xam nag moom moo di euh, seen lii di Pâques bi jàll na tey jii nag ca lii di Matir Uganda boobe nag ñu bëri ci ay daanaka fidel teew nañ fa ngir màggal ko kii nga xam nag moo jiite boob lépp mes di Dominique Bassène woo nag ñu tegu ci gën nag jàngalem kii di Jésus Christa dañu dikk ci biir xibaar yi soxal na wàllum. Euh, lii di politique euh, soxal lu jëm ci parti démocratique sénégalais ci diwaanu Mbàkke euh, foofee nag soxal na lu jëm ci njaayam carte ma jëm ci jafe-jafe yoo xamante ni indi na ko ci lii rek soxal wàllum rek ni nga xam nag moom moom lañ ko joxe mu nekk loo xam daal metti na leen lool mu xeex pëccëxoo daanaka ay xeer ak i daanaka kurfañ mel na mbàccum gerte pëccëxoo ga doy waar kii di responsable Lamine Fall nag ne lu ni mel dootu nangu muy am ñu koy salfaañi daañ ci ndaw teewal El Hadji Modou Gueye UNACOIS ñaawlu ñàkk sàmmanteeg eh, lii di mi dëkkoo ci njënd ak njaayum ceeb bi ak sukkër bekk leneen ci xeetu ko ñam loole nag bokk na ci daanaka démb ndaje bi ñu woote jàpp ne nguur gi jot na ñu àddu ci mbir mi nu mel ndaxit it nag moo gën balaa rek bay di wéy mbuus bokk na lu soxol ci li nga xam moom moo jëm ci euh, Bamba Fall moomee euh, soxal lu jëm nag ci li nga xam moom moo di ca Médina foofe moom daal naqaru lu jëm ci euh, doxalinu yii um, di préfet ba bañ dut baaraamu tuuma di jibi jàll jàpp ne nag am na waggate gu mu def ci liggéey ba ñu ko dénk ñu ñaawlu ko ba fa ñaawlu yam mbokk yi bokk na ci yeneen yi ponk yu ñu ciy fas yéene boole mooy buur jotaay xibaar yi ajaratu Mama Zeynab incha allah une di benn waxtu yaa ngi foofu ca Géejawaay maman waaw ñu ngi fii ci géejawaay yow yaa ngi fële ci HLM macha allah incha allah dinañ ko taaxirloo. Mhm. kon baax na ñu bàyyi la ak say gan nga wéyal liggéey bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy def eh, di la ñaanal. yàlla sunu ñu ngi jaajëfal bu baax a baax. jaajëf ñu yendoo ak jàmm. Mhm. shukran. waa kay ñu yendoo ak jàmm Abdou jërëjëf merci beaucoup. kon mi noonu mbokk yi xam naa dañuy ñëw ci oustaz li des ci waxtu bi sax bare bariwul oustaz dinañ ñëwaat ci yow léegi incha allah ñii ñëw. oustaz euh, Muxtaar ñii ñëw suba ban comportement ngeen di sàkku ci ñoom. ok jëf yaa Seyda xanaa fàttali leen rek waaye bu euh, njabootu Mawlana Seydi Cheikh Ahmed Tijani Chérif radiallahu anhu kenn ku nekk xam na jataayu zikar. soo fay dem dafa am ay yar am teggin am melo boo xam ne moom la ñu sàkku booy ñëw nga mel noonu. su ko defee ñu ngi fàttali ñëpp rek ni suba comme ni ko présidente waxe kuy ñëw la nga sol lu weex incha allahu rabbi la nga yor tamit sa sijaada ñu ngi ñaan ñëpp tamit eh, ñu teel a ñëw boo ñëwee tamit sàppe yi fa nga fekk mu yem fa rek la sa sijaada foofu nga toog mm-hmm. ndax nit dafa war a roy bi alayhi salaatu wasalaam te sunu sëriñ Seydi Hajj Malik radiallahu anhu nee na bi moo gënoon ñëpp Mm-hmm. mooy sangu ñëpp jataay bu am moom la ñuy toog di ko xaar waaye xëy suntaha majlisun kaanal juluusu lahu mm-hmm. Mm-hmm. mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam fu mu mës fekk jataay bi yem rek moom foofu lay foofu lay foofu lay toog bu ñëwoon fekk sàpp yi ma nga yem ci potu bële moom foofu rek lay toog mujj gi nag moom mooy nekk boppu sàpp yi ndax nit ñëpp dañuy wëlbatiku jàkkaarloo ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ñu ngi ñaan képp ku ñëw fu jataay yi yem rek nga toog foofu téye sa kurus ànd ak mbooloom xadara bi incha allah def li ñu war a def rek incha allah ci kàttanu yàlla incha allah mhm. ëllëg incha allah moo ñu daje def suñu xadaratul juma mhm. ñaanal nag suñu sëriñ ba sëriñ Abdul Aziz Al Amin mhm. ndax xadara bi mosul am benn moom dañ ko ci fàttaliku bu baax a baax a baax ndax lii mooy ki nga xam ne moom moo ko sos moom sëriñ Abdul Aziz wax na ko Mouhamadou Fata mbir mi def ko tàmbali woon mu nekk lu tuuti. Mhm. Adja Adja aja Adja Zeynab. Mhm. gis nga sooroor bële ngay seen. Mhm. moo taxoon suñu Abdou ñëw fi. soorooru juma jële boobu moom la ñuy immigré. ba ñuy def pose première pierre ba ñu fa woon Oustaz Makhtar ña nga fa woon keroog. ñëw fi tubaarakallaahu ubbi ko lii di dox ba léegi. mu ànd ceeg ñun ba daaw ñu ñëpp yaakaaroon nañu daaw du ñëw. ngir mage gi. ngir télé gi. mais dañoo jekk ba yàgg rek seen ko ak oto mu soox yegg si ñoo toog bokk ak ñun xadara bi mm-hmm. tubaarakallaaw mm-hmm. loolu munu joxoon nag bàyyi koog ñun mm-hmm. ñu téye ko sunu loxo bi nii tubaarakallaaw Eh, loolu mënu joxoon ñu mu bàyyi koog ñun. Mhm. téye ko ñu téye ko tabaarakallaahu ci sunu loxo bi loolu fas yéene nañ koo téye ba fekki ko yal na yéex. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon xadara bi ñu mhm. la sant bu baax. di la gërëm ci émission bi di sant ñi ma toogal ñëpp. Mhm. rawatina présidente tabaarakallaahu ak ñu toog ak sama bàjjen bi tabaarakallaahu nga xam ne. moom maa ngi koy sant bu baax. parce que moom yóbbu woon daara ma jàngi. moom kii toog tabaarakallaahu di bàjjen. tabaarakallaahu maa ngi koy nuyu baax di ko ziar. loolu rek moo doon Adja Zeynab comme nga wax ni waxtu yi li ci des bëriwul incha allah dëgg la salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf oustaz Pape Mokhtar kaddu yi am na solo lool macha allah yal na yàlla yokk sa xam-xam leer na leer na macha allah euh, li ma bëgg a laaj oustaz Pape kan nit ñaan na ba sonn allahuma ainni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik te léeg-léeg sax du ko dégg man jàpp naa ne suba ku fi ñëw di nga ko dégg incha allah nga def ci benn taan yi xaat bu ndaw rek jox sa ndékaane Uh, allahuma aini ala dikrika wa shukrika wa xusna ibadatik mhm. yonent bi salaa sallam moo ko joxoon Muaz ibn Jabal radiallahu anhu mhm. yonent bi mooy xool Muaz ba mu yàgg mu ni Muaz dama la sopp mhm. yonent bi ku mu sopp li am nga chance wallaay am nga chance sallallahu alayhi wa sallam mu ni Muaz dama la sopp mu la bëgg kaay kaay Muaz ñëw mu ni ko soo mënatee say boo jullee ba sëlmal rek na nga wax lii yàlla mooy allahumma yow yàlla ainni yal nag ma dimbali ala dikrik ba ma bokk ci jaam yi nga xam ne fu ñu toll ñu lay tudd wa shukrik nga boole ma ci jaam yoo xam ne loo leen defal ñu sant la mm-hmm. wa xusni ibadatik nga bokk ci ma boole bokk ci jaam yi nga xam dinañ la jaamu waaye dañuy rafetal jaamu yin wax kon ku daan ñaan yàlla yàlla boole la ci zikkarkat yi. Mhm. soo ñëwee ba ci stade bi xam ne zikkar am na. incha rabbul izzati. incha allah kon ci loolu la ñu woote. Eh, fa tabarakallahu eh, ànd ak ni ko oustaz waxee. wa sakina. Mhm. min aadaabi zikri. dafa bokk ci tegginu tudd yàlla. ki koy def na dal. ki koy def bu mu wax leneen lu koy perturber. Mhm. na zikr bi rek nekk item. même boo ñi boo dee ñëw sax fekk mbooloo mi tàmbali nañ yow sa kàddu mën nga ko téye dox ndànk bi egsi rek nga toog kon loolu ci la ñuy woo ñëpp incha allahu taala gannaaw te ni bi ñu wax nag mhm. ni du euh, lajna bi ñoo ko tànn du euh, initiateur bi moo ko tànn mhm. mais yonent bi sallallahu alayhi moo tànn tëni bi moo ko bëgg fa tabarakallahu mhm. ma sha allah kon ñu ngi ñaan ñëpp ñu bàyyi xel loolu ñuy gërëm jataay bi bégee bu baax sunu soppe bi muy mhm. Haji Maxtaar mhm. nga xam ni lajina bii nii moom moo ko jiite moo ko jiite macha allah mais yaatal ko nag mhm, yaatal ko xeebul kenn ci dara kooku te mën na ko taxawaa ah. mm-hmm. mais lu nit ñëw ak sa xam-xam rek moom xajal na la yaatal na la pour nga ànd ak moom liggéey boobu noonu loolu tam lu mm-hmm. rafet la mm-hmm. yow tam yàlla na yàlla defal la tawfiq bu baax a baax a baax defal ko tam uh, télé bi macha allahu taala kontaan nañ ci asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah allah def naa xam ngeen ko mi ngi rajo Dunia fa def émission yu am solo maa moom léeg-léeg ñu toppante comme démb uh, waa démb àllarba ci guddi su ma paree am na moom moo ciy topp am na ku ci topp moom mu toppaat ci Omar Sow moo ci topp yow nga topp ci macha allah yal na yàlla dëgëral la defal la tawféex. Adja Maguette lan ngay wax jigéen ñi suba coow li wax ju wax ji gëj a gisante beeg namanti ko bi am dina am solo mais ñu xam ni place bi ñu ñëw ay malaayika dañ koy wër. amul fu ay nit di toog di tudd yàlla lu dul malaayika yi wër nañ leen te sànq oustaz li mu leeral muy ku baax dina fi teew suba incha allah. ban kàddu ngay lancer appel ci jigéen ñi. waaw soxna Zeynep yooyu pour ñu. Mm-hmm. soxna Zeynep Sarr. Mm-hmm. may dellusiwaat rek di lancer ci loolu. nga sant bi ma gën a neex. <laughs> Euh, waaw jigéen ñi. ma leen di ñaaxaat. ñu ànd ak dal. ak yar naam mi ngi fi waaye dañ leen di gën a ñaax ñu xam ne fii yàlla yàlla rek moo ñu fi indi dañuy sàkku si ñaan te li ñuy ñaan incha yàlla dina ko nangu parce que wane nañ ko. te bés bi ñëwagul kon nag bu ñëwee ñu ànd yar ak dal te wàññi coow li ak wax ji ku ñëw na nga yor sa kurus ku bëgg a wax wax ko nekkoon ko na noppi parce que nag li ñu fi indi nag mooy tudd yàlla ñaan ci yàlla ñaanal réew mi ñaanal àdduna bi. Mm-hmm. yàlla saxal fi jàmm def fi sutura. ba ñëpp ànd booloo nekk benn parce que sëriñ si ñu jiital loolu moo leen tax a jóg ci loolu lañ ñu ñaax kon nag may waxaat sama mbokku jigéen ñi rek di leen lancé appel nañu gën a gën a góorgóorlu ci yar bi ak teggin bi ak noppi gi ngir yàlla wax ji. Mm-hmm. wax ji nag moom góor ñi macha allah zéro faute. Mm-hmm. mais suñu mbokk jigéen ñi nañu fexe ba nañu maandu téye seen kurus ku indi wax ci ñoom sax nañu noppi parce que nag. dinañu dinañu sécuriser entourage bi pèlerin yi dinañu am commission d'accueil boo xam ne nii ay xale lañuy doon te ay xale ci biir yi mag yu am rigueur. Mhm. duñu may dara xale yi. Mhm. ñàkk may bi nag du ñàkk teggin wala ñàkk laa wormaal waaye dinañ ne leen nañu ànd ak yar ak teggin te noppi parce que nag booy sàkk yu. Mhm. turu yàlla ku koy tudd ku ne war ngaa ànd ak yar. ak dal ak teggin ndax yàlla nag. li mu yor mayu ko soxna Zeynab mhm. waaye nag ci anam ba nga ko koy ñaane ak nam la koy joxe kon nag nañu gën a góorgóorlu mhm. ci yar bi ak teggin bi ak dal bi ak wax ju bari ji loolu moom sam mbokk jigéen ñi maa ngi leen koy ñaax mhm. wax ji daal na gàtt ku ci am looy wax téye ko nañu fay portable yi bu ñu wuyu parce que zikkar àndul ak wuyu téléphone zikkar àndul ak ak ak wax téléphone zikkar àndul ak waxtaan ñaan ci yàlla na yàlla parce que sëriñ Abdou ba ne ba ko Mouhamadou Fata Sarr ne ko sëñ bi noo bëgg mbir mi mu ne ko nay yàlla kon nag yàlla jooju la ñu bëgg a suba incha allah soxna Zeynab euh, di la delloo njukkal mhm. di la ñaanal yàlla fu ñu toll ñun jigéen ñi ñu ngi lay suivre ci émission yi bërki démb dama ne Oustaz mhm. nañuy bàyyi diine ji muy ëpp sola ci ndénkaane bi mhm. parce que tam dañ koy soxla dëgg la nit ñaa ci biir kër yi di suivre nit ñaa ngi ci biir njaboot gi mais nag soxla nañu diine ji mu ëpp solo ci biir waxtaan wi parce que tam orientation dafa am solo. ndax xam-xam. Mhm. Euh, dama daan dégg ci Serigne Cheikh muy wax naan nit loo am am am am am. Mhm. dara jajoo mën a am am am. Mhm. boo doon yé yéyi téere te àndoog dal. ak yar. doo am dara. kon nag nañu gën a góorlu gën a takku mhm. gën a solidaire gën a booroo mhm. gën a nekk benn mhm. ba li ñu bëgg ci ci ci ci tarixa bi yàlla suturaal ñu ci soxna Zeynab nag macha allah yow moom mention spéciale ñëpp a kontaan ci yow jigéen ñaa ngi lay suivre à tout moment di rafetlu waaye daal buñ sañoon euh, plateau bi diine ji waaw soxla nañ ko daal waaw soxla nañ ko soxla nañ ko <laughs> waaw di di di remercier itam technicien yi caméraman yi. Mhm. DTV zéro faute. macha allah partout dans le monde dañ leen di mhm. suivre. dëgg la dama am sama benn frère bu jóge Italie barki démb. mu ne ma mhm. moom Mourchid la ko doon suivre. mais ren incha allah am nañu DTV. ma ne ko jël nañ ko direct. ñibbi na sax barki démb. ma ne ko nag boo demee jàll leen foofu information bi. ñu jàpp DTV. incha allah damay dégg sax ñu naan chaîne leader. waaye ñun nag. DTV mooy suñu seen leader et je le dis haut et fort. <laughs> waaw ci kanam ci kanam macha allah ñu ngi lay jaajëfal yow itam macha allah macha allah xam naa invité sax benn bis ndénkaane fële ca ca rajo ba ca télé incha allah merci kontaan nañ Oustaz Makhtar. ci ci tënk waxtu bi dab nañu suba programme bi naka lay demee. waaw programme bi. ban heure lay commencé kuy ñëw ban heure ngeen ngeen woote. waaw am na ñuy jógee ci régions yi mbokk yi nekk Kaolack. Mhm. ñu ñaana leen yoonu jàmm. mbokk yi jugee ko Mbour ñu ñaanal leen yoonu jàmm mbokk yi jugee ko Tivaouane ñu jugee ko Thiès ñu jógee ko ba Ndar partout daal ci Sénégal rawatina suñ mbokk yi jógee Saalum suñu dëkk ba Ndramé Escale ak li ko wër ñu ñaanal leen yoonu jàmm ñooñu dañuy teel a ñëw ko defee bu ay une jotee ci lañ bëgg xéewali noppi ndax am na yëfu caameen yuñ fi waajal mhm. incha allahu taala buñ ko jëfandikoo ba noppi ñu julli jumaa buñ jullee juma dem ci kër ya waaj rek a fi xaj. Mhm. bëgg nañu trois heures ku ne déplacé wu ci dal yi ñëw ci stade bi quatre heures tele yi def direct yëpp incha allahu taala. DTV mii ngeen di seetaan ci la bokk suba. Mhm. direct lay def xadara bi. fu 16 heures jotee dana ñu tàmbali. Mhm. Euh, gan yi ñëw ñu dalal leen organiser. tàkkusaan bu jotee ñu julli tàkkusaan bu ñu jullee tàkkusaan ba noppi danañu lal malaan pour wasifa. bu ñu wasifaa ba jeexal. oustaz euh, Ahmad Sarr bu Louga mhm. dana am message bu gàtt bu mu dugal ci ngëneelu tudd yàlla ak jataay bi ñu toog di ko def mhm. bu daanelee kàddoom yooyu noonu le ñu dugg nag ci xadaratul jumaa bi bu ñu xadaraa ba jeexal julli timis danañu jàng xatmu bi suñu mag aadama Sarr di ko jàng mhm. xatmu boobu la ñuy tëjaalee ñaan yi ñu doon ñaan yëpp kaamil yeeg dog yi bu ñu noppee nag ñu dalal kilifa yi euh, ki ci jiitu di xalif général des Tidiane sëriñ Mbay Si Mansour sëriñ Abdou ni ko Oustaz Pape waxee léegi ren la ñuy yëg sunu weetaay ndax juróomi at mu ñuy gunge di nekk ak nun ba ren la ko yàlla jël jataay boobu bu demee ba ñu toll ci xel yëpp dana dem ci moom waaye nag dem na waaye bàyyi nañu fekki mbër bàyyi na fi xalifa bi ko fi wuutu muy sëriñ Mbay Si Mansour mu joxe ndigal ci xadra bi ngir ñu doxal wax ne nañu diisoog maam euh, sëriñ Pape Malick nañu diisoog diisoog sëriñ Moustapha incha allahu taala kilifa yooyu yëpp ñu leen di bu mhm. buñ ñëwee ñu dalal leen déglu leen message bi ñuy jox njaboot gi ñu taataan ko incha allahu taala. jigéen bu gis ngànt mën na ñëw. waaw mën na ñëw. Mhm. waaye mu bañ a mu bañ a nekk euh, ca ca ca góor ña. mu euh, ci biir. mu nekk mu nekk fu fu beru mhm. mais mën na toog sax di bokk di def li ñuy def boo demee ci faakiha Cheikh Alhaaj Mal nee na jigéen ji gis ngànt ak ki feebar dañ ko tànnloo pour mu def vicaram ak mu bañ ko def kon mën na ñëw mhm. waaye ni ko yenente bi doon waxee rek ci iid bu jotee mu ne jigéen ñi ñu génn ba ci ñi am ngànt waaye ñu ñu isolé wu ñu beru bañ a jaxasoog ñi nga xam ne gisuñu ngànt si daal tey nag kon loolu daal la ñuy tàggoo di leen sant di leen gërëm di sant jigéen ñi mhm. franchement seen engagement euh, foo ko takk weesu na ko mhm. euh, kenn ku nekk da nga jël mbir mi def ko muy sa mbirum bopp waxuñ mbirum sëriñ Fata la waxuñ mbirum ma sàmba la waxuñ mbirum ma demba la waaye ku nekk dafa jàpp ne mbir mi mbirum boppam la mhm. muy jigéen ñi muy xale yi muy ñëpp waxuma sax waa waay rek mais waa Sénégal <laughs> uh-huh, waa Sénégal gépp ñoom ñoo mànkoo mhm. ne xadara bi seen xadara la ñu sant leen gërëm leen foofu la ñu daanalee sunu kàddu wasalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah kon jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi tey lii moo nekkoon seen émission ndénkaane jaajëfal oustaz Makhtar Sarr oustaz Pape Kane ajaratu Maguette Ndiaye macha allah oustaz Pape Mokhtar Sylla ak public bi nga xam ne ñu ngi nii ñëw toog macha allah di waajal suba ak jàmm yàlla nañu ko fekk ak jàmm. waa région yéen tam ñu ngi leen di jaajëfal caméraman yi ñu ngi leen di jaajëfal ba subaak jàmm ci stade bi xadratul jumaa la ñu wax incha allah Sénégal am jàmm ñun ñëpp ñu am jàmm ndax lu dul jàmm nag jàmm moo ko gën te suba ku fi ñëw incha allah di am jàmm di ko yëg ndax ki ñuy tudd moo noonu ndax turam yi daf cee bokk asalaamu kon ñu ngi ciy woo ñëpp wax ñu yéen doog jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu